ngir faj sa mbir wadduha yàlla mo ci giñ yor yoor la léppay leer alaaji mamadou cissé mara wa gol allahumma salli afdal salatina ala اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد يا للجل سيدنا محمد يا من الجل يا من المنلو محمد رسول الله su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yoneen dee nga ka way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni baay fer nu baasi yaalin kooka mooy muhammadu rasulullah والحمد لله الذي بارادته اوجدنا وبمشيئته جعلنا مسلمين صلاة وسلاما على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورجى الله عن شيقنا ووصيلتنا مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه أيها المستمعون الكرام أيها الإخوة في الله لله نحييكم جميعا تحية إسلامية تحية إيمانية طيبة مباركة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكي جولي يتديني دوغلو جناو بني سانتي بوربي سبحانه وتعالى بكم مسلو تبكن الشيطاني ñu ngi julli ak sëlmal ci sang-sang yi sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak i saxaabaam wa radiyallahu an shaykhana ahmad tijani sharif radiyallahu taala anhu ñu ngi sant buur bi subhanahu wa taala bu baax baax baax ci kàttan ak may gi muñu may ñu teewaat أجيان جتاي بو تد دي جتاي خم خم فتبارك الله دي سين إميشون ودوحا موي أمي في تي راديو المدينة اف ام ديماس بو جوت سي وقت سين مبوكو الحاج مودو سي دي لين كو دفال فتبارك الله euh, dañ koy ubbil rek xam naa am dafa am fu mu jaaroon waaye dañ koy ubbil ci kanam tuuti incha allahu di ngeen ko dégg comme ni mu ko daan defee ci kàttanu yàlla ànd ak yéen émission bi fa tabaarakallaahu ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu di ziyaar suñu kilifa diine yu tedd yi euh, di ci jiital seen Cheikh Ahmed Tidiane almaktum Cheikh Ahmed Tidiane Niass alkawlaxi ak mbooleem xalif généraux yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi yëpp ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di sàkku ci ñoom ñaan fa tabaarakallaahu di nuyu itam di ziar mbokki auditeur ak mbokki auditrice yu émission Wadduha fu waay mën a nekk góor jigéen mag ndaw ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar fa tabarakallahu di nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy allahu shaafi yàlla na yàlla saafara leen jàngoro ya nga xam ne moo taxoo ñoom ba ñu tëdd foofu yàlla na leen ko yàlla saafara ban dellu seeni kër ci barke alquraanul karim al azim di nuyu itam di ñaan ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne nattu daf leen a dal ñu nekk ci prison yi yàlla na yàlla xettali leen ba delluwaat ci seen njaboot ànd ak seen sago te yàlla musal leen ci nattu yi nga xam ne moo leen fa yóbbuwoon ci barke alquranul karim al azim di nuyu di ziyaar suñu technicien bu baax bi ñu jàkkaarloo ñu koy nuyu di ko ziyaar lu bare bare bari di nuyu itam borom kër gi ak personnel bi nga xam ne ñuy liggéey ci kër gi yépp ñoom ñëpp rek ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar di leen wàcce seen wàccuwaay di nuyu itam di ziar sunu mbokk moom i technicien bu baax di sëñ Ablaye Mbeng moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar lu bare bare bare fa tabaarakallaahu euh, seen war Wadduha comme ni ngeen ko baaxoo woon di ko dégg incha allahu léegi tey alxaaj Moodu egsi incha allahu fas yéen koo ànd ak yéen nam ka daan defe lépp rekk di yéene nekk njariñ pour jullit yi moo xam ci wàllu ay nasixa la muy ay laaya biir wala loo xam ne ci walla loo xam ci wàllu ibaadaat lay doon wala loo xam ne ci wàllu azkar lay doon wala loo xam ne ay nawaafil lay doon comme ni ngeen ko baaxoo woon yooyu yëpp incha allahu noonu lañ fas yéenee ànd ak yéen ci émission bi euh, fa tabarakallahu euh, incha allahu ci kanam tuuti dana dugg ak yéen ci ci liggéey bi incha allahu fas yéene koo defee ni nga xam ne noonu mooy aaday émission bi di nuyu itam di ziyaar suñu kilifa gu baax di sëñ xaadim rasul Guèye ñu koy nuyu di ko ziyaar lu bari bari di ko ñaanal yàlla na yàlla dolli ko tawféex yal na yàlla dolli ko gudd fan yàlla dolli ko kàttan dolli ko wér yéeneem ci jaamu yàlla yi yàlla mottali ko ci barke alquran karim al di nuyu itam di ziyaar eh, sëriñ Babacar Dieye moom it di wóorlale bu baax a baax di ku am yitte ci daaray Wadduha moom it ñu ngi koy nuyu lu bari di ko di ko ziar eh, di dem itam ba Joal ziar mbokk yi nga xam ne ñoom it ñu fa ñoom it di safon émission bi heure bu émission bi commencé rek ñoom it lu ñu doon def wàcc ko di ko dublu muy sëriñ Aliou Touré soxna Khady Diop ak eh, sëriñ Mame Gor Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar lu bëree bëri bëri. di nuyu itam di ziyaar suñu wóolër bu baax moom it di ku am yitte ci daara Wadduha di sëriñ Fallou Ka moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral yàlla dooli sutura barke alquranul karim al azim fa tabarakallahu ba léegi tamit ci soppe yi nga xam ni ñu ngi déglu émission bi eh, di nuyu suñu mbokk mu baax moom it di sëriñ Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Niang eh, nekk fële ca parcelle yor fa daara internat moom it ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu itam di ziar suñu mbokk mu baax Cheikh Ibrahim Niang ñu bëggan koo xam ci Ibra Ndiaye moom it di ku am yitte ci émission bi bokk ci mbokk yi nga xam ne bu émission bi pa commencé rek lépp loo xam ne dañ ko doon def eh, dañ koy bàyyi ba émission bi jeex ñoom ñëpp fu waay mën a nekk rek auditeur ak mbokk auditrice di safoo émission bi di duglu émission bi ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu euh, di ñaan yàlla rek yàlla yii wu fi rote yàlla boole ñu ko ñun ñëpp ci barke alquranul karim al azim fa tabaarakallaahu euh, mu mel ni ubbee rek benn laaya biir bu ndaw Euh, bala ñuy dugg ci biir émission bi wa tabarakallahu alxaaji Modou egsi na léegi ngeen dégg ko incha allah comme ni nga xam ne noonu la baaxoo di ko def ak yéen ci émission bi waaye fa tabarakallahu mu mel ni euh, ñaan moom li ci sang bu tedd ba wax sallallahu alayhi wa sallam loolu rek day na sëkk fuñ tollu di ko bàyyi xel waaw fuñ tollu di ko bàyyi xel te mooy li wax ne adduaa u silaahul mu'min sallallahu alayhi dafa wax ne ñaan mooy ngàndaayu jullit waaw jullit daal bu fekkee am na armu boo xam ne moom lay takkool fum mu toll armu boo xam ne fum mu toll moom lay takkool ba lu ko bett du ko mën a gañe nee na arme boobu mooy ñaan te defe naa waxoon nañ ko ci suñ émission yi paase woon ñu ne sallallahu alayhi wa nga xam ne lépp lu yàlla bind moo ci gën ak yàlla jëloon àdduna teg ci loxoom ak pouvoir bi ko yàlla séddee moonte day ak loolu lépp lépp lépp lépp amutoon benn jëf joo xam ne benn action boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam daanu ko def te du ci jiital ñaan loolu nag mu nekk jàngat pour xeetam pour ñu bàyyi ci xel xam importance bi nga importance bi nga xam ne moom la ñaan am amut lum daan def te daawul jiitu daawul jiital ñaan bu daan génn bunt këram bu daan dugg ci jàkka bu daan tëdd bu daan dugg ci biir néeg lu ci nekk lu ci nekk lu ci nekk rek ak la nga xam ne ñaan ñaan ñaan la koy ubbee buy lekk fa tabaarakallaahu kon loolu lépp jàngat la pour nit ñi fu ñu toll di bàyyi xel ñaan waaye nag suñ jamono bii ñuy dund fii ñu toll nii da cee rawati nekk jamono boo xam ne a ah, jamono bu yéeme yéeme la muy ci crise bi ci côté jikko yi ci crise bi ci côté wàllu am-am bi crise bi ci wàllu njàng mi ci côté boo dem rek fi mu ne foo dem rek crise ba mu ngi mu ngi ci biir kon nag defe naa jamono yi ñu toll ci lan ak niñ koy waxee yenn yi nga xam ne yeneen xeeti mbindee fi nga xam ne fa tabaarakallaahu jamono bi itam seen seen pouvoir dafa gën a yéeme seen pouvoir dafa gën a yéeme te bari ci ñoo xam ne da bari ay ay ay ay ay yàqkat kon moo tax rawatina jamono bi ñu toll euh, di bàyyi xel ñaan lu lu lu lu am am solo la fa tabarakallahu mu waxaat tamit ci beneen riwaaya ne adduaa u muxul ibada mu ne ñaan su doon jëmmi nit maanaam jàmm yàlla bu doon jëmmi nit yurga moy ñaan lool lepp rek muy wane importance bi nga xam ñaan amna ko nga xam julit bi fu mu tollu da ko wara def arme euh ah, diko diko diko bayyi xel ñaan nak ki ñaan kon la ñaan day fekk nekkul ci loxom waye kami ñaan moy borom bi subhanahu wa taala تبرم سبحانه وتعالى موحني ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها يلا دي أمنا أي تر تر يو خمني يو مغ يو سلل يو خمني كيبو كتوا يلا رك دانا لتبوي فتبارك الله الحاج مودونك أه nga xamne yëngutum yépp ci lay ñaanal jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel génnut alquranul karim al azim te alquranul karim mooy téere bi nga xam ne maa farat naa fil kitaab min shay waaw amu dara dara dara lu doomu aadama bi yittewoo di ko soxla moo xam mbiri àdduna la wala mbiri allaaxira te nekkul ci téere borom bu tedd boobu maa farat naa fil kitaab min shay kon fa tabarakallah kon su fekkee moom yëngatoom yépp yàlla daa dogal mu nekk ci alquranul karim al azim fa tabarakallahu loolu rafet ci njott ror rekk rekk rek rek ci mën a def fa tabarakallahu comme niñ ko waxee nag adduwaawu silaahul mumin ñaan mooy ngandaayu jullit kon itam day baax ci ki nga xam ne Euh, day ñaan comme ni ko alxaaji Modou di waxee ndab li nga xam ne ci lay tàllal ki mi ñaan pour mu defal ko ci ndab loolu nag muy góor góorlu ba mu nekk ndab loo xam ne ndab lu sell lay doon ndab lu taaru lay doon te ndab loolu buñ ko dee misaal maanaam mooy xolu jaam bi waaw ki nga xam ne daal am na yitte ñaan pour mu la ñaan mu bëgg yàlla may ko ko la mu war a njëkk a def mooy sellal te mooy mu sellal xolam ngir bu ne allahuma walla bu jógee sol seeti ku mel ni alxaaji Modou Cissé buy jëflanteek moom fa tabaarakallaahu jëflante ba mën a yomb ba la mu bëgg yépp yàlla defal ko ko ci barke alquranul karimul azim waaw moo tax xol boobu dafa dafa nekk loo xam ne lu mata mata mata mata mata bàyyi xel la fa tabaarakallaahu di fàttali mbokk yi rek ne yéen a ngi seen émission Wadduha fii ci Almadina FM fa tabaarakallaahu mel ni euh, kilifa gi egsi na xam naa ci kanam tuuti rek incha allahu di ngeen ko dégg mu nuyoo comme ni nga xamee ne noonu la émission bi baaxee fa tabaarakallaahu ñu dugg ci liggéey bi incha allahu rabbihi taala xam naa kon dañuy wax technicien bi mu am lu ñu yëkkati tuuti rek bu ko defee kilifa gi nuyoo ñu dugg ci liggéey bi incha allah nasaluka ya man huwa allahu alladi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahimu malikul xiiwal dikkati na jóge ci alaaji Modou Cissé ñu di ko wax Mara Cissé mi leen andiloon karafiil xamsuna qaaf ijaabu rasul samsul bilaat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

téere Wadduha am na rajo siiwal FM mi dem am na point 1 wooteel ci 77 71 59 77 77 571 59 77 mbokk yi kitaabu Wadduha njëriñam ëpp na juróomi junni ngir faj sa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 su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yeneen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na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

الفاتح لما أقلخ الفاتح لما أقلخ والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله سافي بسم الله كافي بسم الله مهافي ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل حقدة من لساني يفقه القول الحمد لله رب العالمين سبحانك لا حلم لنا إلا ما علمتنا <coughs> فتبارك الله نغي سنتي الله بنو توغي جين جوتاي سن ميسيون tey di 8 novembre 8 novembre 2015 fa tabarakalaa nuyoo bi mat na Cheikh Ahmed Tidiane matal nga fa tabarakalaa nuyoo nga si sama kàddu comme ni ñu daan nuyoo kon nuyoo bi ñëpp fa tabarakalaa Cheikh Ahmed Tidiane jox na leen ko waaye siyaar bi tamit Cheikh Ahmed Tidiane jox na leen ko ñaani tamit Cheikh Ahmed Tidiane jox na leen ko ba pare di sàkku si yéen ñaan xanaa di nuyu sunu technicien bi nu jàkkaarool dimanche bu nekk muy Iba Mar di koy ñaanal di jaar si di ñaanal kër gi di ñaanal kilifa kër gi fa tabaraka di wax mbokk yëpp yaa ngi ni seen émission Wadduha ka bu ngeen wettali konte ak ñun fii si FM 100.8 point 8 Dakar waaye 98 point 8 tamit sa Kaolack su ko defee tey day doon émission siyaara ndax fa tabaraka xaw na noo am tardement di wax mbokk yëpp mën na noo wettali konte ñun émission bi suñu jaaree si 70 104 79 17 70 104 79 17 fa tabarakalaa comme ni ma ko waxee nuyoo bi yëpp sama rak Cheikh Ahmed Tidiane matal na ko siyaara bi noonu su ko defee ku jaar foofu rek dinañ bokk yow émission bi bàyyi yàlla Cheikh Ahmed Tidiane mu ñëw ak eh, lan la bëgg tey nu ñëw si atu doxaa du bu baax tamit eh, mbokk mi nu indi tamuy Ousseynou Sène di nuyu ay soxnaam fa la di koy yokk ñaanal yàlla ay xéewal di nuyu daara ji ñëpp daaray Wadduha fa tabarakallah jaar bu ma jaaree la nuyoo bi si si Ahmed Tidiane rek mat na fa tabarakallah eh, mu mel ni kii bu dee dafa am ku ne si yoon bi nu jël ko Ibamar 70 104 79 17 moom ngeen jaar tey xanaa di siyaare sunu wóllëre yi nga xam ne noo nekk poin sunu waayjur ya fa nek fa te diñuy jàppale bu baax si Wadduha fa tabarakalaa soxna ram jaay bu tengej mo it ngi koy nuy bu baax di koy siyaara sunu wolere yi nga xamne bi no nek mbour mbuur ñoom fa sunu ambassadeur fa di fay lawal Wadduha ñoom it nu ngi leen nuy di leen siyaara di leen ñaanal yalla di ñaanal daaray Wadduha mbour fa tabarakalaa yalla yok ko barke te yalla may ko barke Duha te moy wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda di nuyu xarit yi wëllëre yi soppe yi si sa kàddu nuyu nga ñëpp macha allah nu ngi jaar sa kàddu yi di la nuyu ñoom ñëpp waaye di nuyu koo xam ne macha allah wëllëre bu am solo la si ñun te mooy jàllo bu wàkkaam mm-hmm. nu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal alxaaji Modou Gueye bu Rufisque sëriñ Xaadim nuyul nga ma ko fa tabarakala mm-hmm. sunu jigéen bi nekk Kër Massar Soxna Jaara eh, fa tabarakala ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal yàlla a xéewal di wax ne man ngeen ñun émission bi tey mu émission 70 104 79 17 70 104 79 17 comme ni nga ko waxee Abdoulahi Mbeng nu ngi koy nuyu bu baax fa tabarakallah eh, Alxaji Jaañ bu parcel moom nu ngi koy nuyu bu baax fa tabarakallah eh, di koy ni fidèle si émission bi émission yi passé yépp bokk na nu ngi koy nii bu baax di koy siyaara di koy ñaanal kon Iba Mar bu amee ku ñëw rek nu bokk ndoog moom jotaay bi si 70 104 79 17. bisimilah Cheikh Ahmed Tidiane bisimilah. bisimilah. bisimilah. bisimilah. 70 104 xam naa Iba Mar a ngi si. lijjant bi incha allah. du ñàkk ko fajaar rek da nga mën a jàll en direct si émission Wadduha tey di dimanche di 8 novembre 2015 a Ahmed hubbil maalina wal ahlina wal walada kooku mooy Muhammadu rasulullah تميمي واي غدول لول تاغاتول لول قيسول الحمد لله ما شاء الله الحاج مودو تبارك الله نيوبي ما شاء الله متلنا فتبارك الله كم نين كو واخي رك ايميشن بي موم غا خامني جوتاي لا بو خامني جوتايو خام خام لا فتبارك الله comme niñ ko waxee woon léegi rek bi ñu ubbi. Mhm. Euh, moo xam lu aju ci wàllu ibaadaat la. Mhm. wallaahi wallaahi ndeysaan Alhaji Modou Guèye. Mhm. Alhaji Abdoulaye Guèye. Abdoulaye Guèye borom taalif bi. ah ndeysaan dimanche bi jàll fekk na fi ndeysaan dëgg na def taalif. bu ah, am solo macha allah yal na ma doon yónnee message naan ma Wadduha xam sa diine war ngeen ko bokk boole si. programme yi incha allah mais nag si kattanu yàlla nan nu yokk ñaan rek incha allah <laughs> nu ngi koy nuyu bu baax niki noonu Omar Mbacke Seck mhm. moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara mhm. mhm. ci moo xam ci wàllu ibaadaat la wala wàllu azkar wala ay nawafil fa tabaarakallaahu kon xam naa ci bala ñuy kii dara rek loo xam ne da ko indi euh, auditeurs yi ci wàllu nawaafil mm-hmm, mm-hmm. moo xam ci wàllu salaatu xaaja la mm-hmm, euh, wala loo xam ne ci salaatu la boo xam ne euh, dana nekk protection pour ki nga xam ne da koy jëfandikoo wallaay wallaay muy comme ni ñu koy àddoo rek saa yu nuy def émission nu ubbeeg ñoom si la boo xam ne dana leen di dimbale ndax macha allah julli communication la diggante jaam borom bi dinaa ko wax lu bari ne ku son excellence mayoon audience. Mhm. da ngay am yaqin lool si ne loo fa yóbbu si aajo da nga si dana dana da nga si am saafara. Mhm. jaam bi nag saa yuy julli rek mu ngi audience ak borom bi jalla jalaaluhu. Mhm. ma ne ko mooy tax naa fi la doon lu ama am solo te bonus la. bonus nag fa tabaraka laa ñu si bëri dana di profité suy bonus am. ngir nuy mën a yokk seen i xéewal mm-hmm. mën a ko mooy tax muy lu am solo nu indi woon fi ñaari naafila si émission yi passé xam naa dañ leen koy dañ koy rappeler ni ko mm-hmm. jotul woon a am mm-hmm. te mooy naafila boo xam ne eh, fa tabarakallah salaatul hamdi yi la mooy bi ñuy def si xul wallahu ahad eh, juróomi turu yàlla yi si nekk te mooy huwa allahu ahadun huwa allah ahad ak allahu al don juromi tur yàlla yi nga xamne bi mi ngi ci suratul ikhlas nga def naafila si lim boobu si limu turu yàlla yi fa tabarakalaa baxé won non ko dimanche bi jàll te moy def ñaari selman bu ci nek gënaaw fatih nga def fukki xul wallaahu ahad ak ben nga bo selmalé nga def fat yene ñaari selman bu ci nek gënaaw fatih nga def xul wallaahu ahad 66 bo selmalé nga def benen ñaari selman bu ci nek gënaaw fatih nga def qul huwallahu ahad fukk ak ñett mhm. nga sëlmal def yan yeneen ñaari ràkk bu su nekk gannaaw fatiha nga def qul huwallahu ahad 66 mhm. di ñaareelu allah bi mhm. soo sëlmalee juróom-ñett ak juróom-ñeenteel ak fukkeelu ràkk bi gannaaw fatiha nga def qul huwallahu ahad 135 te 135 mooy al samadu fa soo paree yaa ngi am si 582 surut ixlaas 582 nee naa mooy tolloog alhamdulilahi rabbil alamin fa tabarakallah mu mel ni ki bépp aajo boo si dexanteeg borom bi da nga siy am résultat wu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin boobu da nga koy def 512 582 soo paree nga def istighfar 4075 fa tabarakallah muy julli bu ama ama am solo di naafila boo xam ne na ma ko waxee rek résultat la nga say am mooy alhamdulilahi rabil alamin ba tey nu ma ko waxee rek 70 104 79 17 moom ngeen nu mën a jokkoo ñun tey 70 104 79 17. ba tey nu leen indi tamit naafila bu bëri barke fa tabarakalaa naafila boo xam ne bi day maye ijaaba te boo ko defee ba pare boo loo boo tàllalee say loxo lépp loo ñaan yàlla rek yàlla daf la koy fajal naafila bi diggante timis ak gee la nu koy def diggante timis ak gee soo ñaari rakk ngay def dafa am ku ne si yoon bi waaw bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne bi mbay ah Cheikh Alaaji ah, allah barakala fiik <laughs> ñu ngi lay na yàlla may la barke Duha. Eh, ñu ngi ah, yàlla may la barke Duha. 70 dafa dem. Eh, Cheikh Ahmed Tidiane naafila bi gannaaw timis ak gee nga koy def. Mm-hmm. ñaari ràkk la. Mm-hmm. rakk bu njëkk bi juróom-ñaari fatiha moom ngay jàng. juróom-ñaari fatiha. ñaareel bi gannaaw fatiha nga jàng juróom-ñaari xul wallaahu ahad. Mm-hmm. suratul ikhlaas. dafa am ku si yoon bi bismillah. bismillah. soo sëlmalee boo sëlmalee da ngay sujjoot da ngay sujjoot jàng rabbi laa tasarni fardan. wanta xayrul waarisina naafila bu rëy rëy rëy la mhm. fatabarakallah bu ma juumul léegi mu jege fukki at mhm. fat saa yu ma jullee timis si kàttanu yàlla dinaa say barkelu mhm. ndax dafa bëri barke tey day maye ijaaba soo sëlmalee boo sujjootee rabbi laa far fardan wante xayrul waarisi na ngay jàng juróom-ñaari yoon see sujjoot nga siggi tàllal loxo say tàllal loxo borom bi fa tabarakalaa lépp loo sañaan si kàttanu yàlla yàlla mën na la koy may ñaaree ràkk ràkk njëkk bi juróom-ñaari rakk ñaareel bi gannaaw a juróom-ñaari xul wallaahu boo sëlmalee nga def juróom-ñaari rabbi laa tasarni fardan wanta xayrul waarisiin nga def ko si sujjóot siggi tàllal say loxo borom bi jëla jëla loxo déewante ak moom bismillah ki si yoon bi bismillah 70 104 79 17 Cheikh Ahmed Tidiane bismillah mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. tabarakallah mu mel ni nawaafil yooyu nga ci joxe mhm. euh, lu ne xaj na ci mhm, te mhm, lu ci waay xëcc rek ci kàttan suñu borom yàlla mën na la ko jotale nekk nawaafil yoo xam ne nawaafil yu am am am solo la Euh, fa tabarakallah lii yëpp day wane ne euh, li li tax émission bi jóg rek mooy nekk njariñ pour. wallaay wallaay euh, ndeysaan pour ñëpp mucc ñëpp yokk. waaw pour mhm. mbokk mbokk yi nga. yàlla de ñëpp mhm. defaru tamit fa tabarakallah. 70 54 79 17 dafa am ko ne si yoon bi ba maar tey foofu ngeen nu mën a jaar 70 54 79 17. fa tabarakallah nu ngi nuyu bu baax tey ndokkeel Serigne mbay moomu. Mhm. fa tabaarakallaa wa saabiquuna saabiquuna moom la ñu wax. tey mooy ñetteelu émission Wadduha fii si almadina. ci madina émission bu si nekk fa tabaarakallaa yàlla danay def moo njëkk a woote. émission bi ma njëkkoon a def waxoon naa ko na ma woo nu jokkoo waaye fa tabaarakallaa xam naa jàppandegul. nga jël ko si yoon bi. bisimilah bisimilah allo allo. 70 104. 79 17 mooy yoon bi. waay laay laay laay laay laay yaa mat a xam. laay laay laay laay laay ko sax tey ku bëgg yónneen maa bëgg yónneen maa wolu yónneen maa bëgg sax ku xam ci yónneen maa bëgg yónneen bismillah allo bismillah bismillah bismillah bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah Eh, jërëjëf yal yàlla nangul nu Serigne Mbaye jërëjëf allo waa bismillah bismillah allo waaw bismillah yaram ah, ma ne ñu ngi baax baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen teewal fii ci Mbour wallaay ndeysaan ah nu ngi ah. siyaare mbokki Mbour di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf yal yalla yàlla euh, barkeel ñu ngi leen ñu ngi leen ciy ziar. jërëjëf yal na yàlla nangul nu di ziar euh, Cheikh Ahmed Tidiane Gaye moomu. wallaay ndeysaan uh-huh. waaye itam dem ba juróom di fa ziar mbokk yëpp wax dëgg yàlla. wallaay mbokk mi woote kan la. ah Mbaye de Mbaye Niang la Mbaye Niang. Ah, sëñ Mbaye Niang. <laughs> ñu ngi leen di ziar sëñ Mbaye Niang bu. bu Jurbel ah. waa. Ah, bi nekkoon ci daara ji waaw. dëgg la dëgg la dëgg la. ñu ngi leen ñu ngi leen di baax a baax bég nañ si jokko bi macha allah. di di ziar ñoom alhaaji mu mag. wallaay ndeysaan wallaay. di ziar ñoom Baye Tall fii si ñoom ñëpp. ñu leen di ziar wallaay wallaay ndeysaan rafet nekk ci daara ji itam ñoom ñu ngi leen di ziar. wallaay wallaay wallaay Niang Eh, di sàkku ñaan itam ngeen doon ñu ñaan ci daara ji ah, macha allah bég nañ bég nañ si jokkoo comme lañ nekk woon jaari rek moom lañ nekk fii ba léegi wallaay ndeysaan wallaay waaye nag léegi dafa dawal ñu ngi ci suñu yëfi bopp macha allah loolu la <laughs> wallaay di ci sàkku ñaan bu baax la macha allah bég nañ sa lool tamit eh, maa ngi siyaare wàllu Cheikh Ahmad moom sama rakk. wallaay maa ngi dégg léegi Cheikh Tidiane di ko di ko di ko jàllale wallaay ndeysaan di ziare Ibrahima Niang moom itam sama rakk la moom itam. wallaay wallaay Niang. ñu gën koo xam ci Ibrahima Ndiaye. wallaay wallaay ndeysaan eh, wallaay wax dëgg yàlla rafetlu nañ émission bi baax a baax a baax ñu ngi ci jàng di ñu ngi ci def lépp wax dëgg yàlla. yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel yàlla bàyyi la sam xel. amiin amiin Niang. Eh, yàlla barkeel xam-xam bi. amiin Niang. Eh, yàlla. may la nga dund yoo xam ne day daal di commencé wax dëgg yàlla. amiin amiin amiin Niang. jërëjëf ñang euh, maanaam ñëpp ko war a ñaanal wallaay ndeysaan wallaay wallaay am na yaakaar ni da nga fi yàgg ndax wa am maama yan saxoon naa sa fa yam ko fi amiin yàlla na ko yàlla defal ñëpp yàlla moo wax <laughs> xam ne dafa nekk ci kaw suuf di yàlla na da nga yàgg ci kaw suuf wallaahi jërëjëf ñang yàlla na la fi yàlla yàggal amiin amiin amiin wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di ziar jërëjëf jërëjëf ñang jazakumullahu xayran amiin way yàkk amiin barakallah macha allah wëllëre la rakk la macha allah eh, nu ngi koy nii bu baax di koy siyaara di koy ñaanal di ñaanal daaraam jooy comme noonu mu ko waxee yàlla barkel ko yàlla yokk fa barke ne daara moom dañuy wax barke ba yokk waaye barke nga fa ndax dañu xelel fa def basin mimara macha allah ñàkk yàlla def fay barke fa tabarak la mhm. kon na ngi ñaanal sëriñu daara yëpp comme nu ko daan defee ak imam yi imaamu jàkka yi jumaa yi fa tabarakala ndax nooy ko yonente bi sallallahu alayhi wa tey yoon boobu ngeen di jaar pour nu jokkoo bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah salaam wa rahmatullah salaam yaram waaleykum salaam ba tey naafila boo xam ne naafila mhm. ku kuy tukki mhm. képp ku bëgg tukki te nga bëgg macha allah bari fay xéewal mhm. eh, am barkeeb eh, wa yanqalibu ilaa ilaa ahlihi masruran naafila ba am solo la <coughs> nawaafili yëpp nag képp ku dem si wadduha point org da ko fa fekk www point wadduha point org fa tabarakala da ko fa fekk <coughs> boo nee suba ngay tukki moom nga koy def moo xam nag da nga ne damay dem Matam suba wala damay dem Paris suba wala damay dem Québec fu mu mën a rek sàddina bi si kàttanu yàlla nga ñaan yàlla da nga am barke wa ahlihi masruran da nga am barke tamit wala saw fa yuxtika fatarda comme ni ma koy waxee ne eh, barke wadduha mooy wala saw fa yuxtika fatarda mooy tamit wala al akhiratu xayrun lak min ula yalla na nu ko yàlla defal defal ko ñëpp naafila bi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha wa yanqalibu ila ahlihi masruran mhm. ak am solo si Ahmed Tidiane naafila bi mhm. Mhm. moom ngay def jun téeméeri yoon ñaareelu bi gannaaw fatiha wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda moom ngay def téeméeri yoon boo sëlmalee wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda da nga koy defaat junni da nga koy defaat mille soo paree nga def yaa jamilu tamit 66 soo paree yaa xaniyu yaa moxni yaa waxaab nga def ko 313 fa tabaarakallaa lii képp koo dégg xam ne lépp lu nit di uti see xéewal yàlla mën na la koy jàppandalal si yoon boobu ndax dafa am ku ne si yoon bi ñu jël ko bisimilah bisimilah allo bisimilah asalaamaaleykum bisimilah 70 104 salaamaaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam yaaram nu ngi lay dégg. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. 70 104 79 17 Cheikh Ahmed Tidiane. Mhm. <laughs> fa tabarakallahu moo Modou di dellu di ziar alxaaji mbay moom nga xam ne moo génn léegi mhm. alxaaji mbay ñang mhm. euh, ñu ngi koy nuyu moom di ko delloo ziar bu baax a baax a baax mhm. moom di ko wàcc wàcc waayam xam ne ñoom bi nekk ay ay sang nekk ay nitu daara ñoom it nga xam ne seen lépp ci al alquranul karim rek la euh, ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax moom di sàkku ci moom ñaan ak euh, bismillah bismillah بسم الله بسم الله بسم الله دافا ملني كي بي خاوا ساتيري لا دافا ساتيري لول لا تكنيسيان بي واخ خمنا بو نيب بوغا دوري داي خاوا داي وار 70 54 79 17 سامت يانغا كونتيني بار وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله وعليكم السلام بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إبا ماردو خلا لي ريتوري 70 54 79 17 بسم الله سامح تيجان دي نوي الحاج مباي موم بو باخ باخ ديكو ديكو زيار ديكو واتي واتي وايم فتبارك الله نوافل بوم غا جوخي مو ايتام كوكو ديغيت دا نا خامني نافله Euh, lu ci waay sàkku ci aajo rek yàlla mën na la ko jotali la mhm, mhm, ko yàlla mhm. mën na la ko jotali ci barke alxuraan wala soo fa yuxtika rabbuka fatarda moom dañ ne soo ko bindee juróom-ñaari yoon yaatal daat ba bind sa lay xaajo boo paree nga def ko 313 juróom-ñaari fan nga koy def nag bët bi set nga def ko 313 ci ci ci sikkal waaw waaw si kattanu borom bi lépp loo fa dugal si xaajo yàlla mën na la koy jàppandalal si kattanu yàlla macha allah wala soo fa yuxtika rabbuka fatarda macha allah lu bëri lool lool lool lool lool ay mbóot la fa mhm. tabarakallah mhm. te eh, kuy dégg la muy tekk rek xam ne mhm. su dee lu doomu aadama yi ut mu am ko danay yomb moom kay maanaa bi boo ko déggee rek ne ko boo déggee maanaa boo ko xamee rek eh, moom mën nga rafet njort ne loo ci yuuti rek yàlla mën na wallaay wallaay te nawaafil bi nga wax dafa am solo tamit xam nga tukki dafa xaw a yéeme te bëri yoo xam ne da ciy laxasu defaale itam am na noo koy yaakaare mën nga dem ba ci biir du demee noonu. wallaay wallaay wallaay moo tax di ci jiital ñaan tamit. dëgg la dëgg la wallaay wallaay wallaay ndax ah, macha allah mbir yëpp eh, jàppandi. Mm-hmm, mm-hmm. ndax su demee ba nga xa ba Ibnu Sabil nu. Mm-hmm. jox ko Assane Asaka Dagan. tegtal la si ne tukki ànd na ki fitna. dëgg la ànd naa ki fitna. loolu nag nga ñaan yàlla yàlla may la barke ba yan xel bi la axlahi masruran nga ñaan yàlla may la ko ñaan yàlla it wala sa fa yuti karab ko fa tarda mm-hmm, mm-hmm. soo pare yaa jamilu nga def ko mm-hmm. defaat wala sa fa yuti karab ko fa def yaa xan yu ni yaa xan yu tur yooyu yëpp di turu koom te def naa képp ku jóg si barab di dem si barab rek yaa ngi waaw yaa ngi ñaan yàlla ak yokkute naafile boobu nu ngi koy ñëpp mooy fépp fu waay war dem rek fa tabarak laa bu ko mënee def sa guddi si guddi gi balay balay xey si mhm. katun yalle ñaan yalle yalle leralal ko yoon bi mhm. ndax ñaari da nga gis ñu bari bari ño xamne sen dañi tukki yo balé cat mhm. wala fa la cat euh, gatandu len fa su ko nak ma sha allah man na ñuy bari ay kalang-kalang biru tukki lu jar di set la sax na tijaan jar di set ba xam yoon ba leer naam lëndëm na ñaari da ngay am ñaan wala ngay am turu yalle wala nimbalu yalle, ba so waré tukki te leerul foog naa am na loo si xam lu si bëree bëri ñaare. Mm, mm, mm, doon naa di waaj yoon. randal ko loolu yi fa tabarakala lépp doo doon ñaan rek. ba nga xam ne ne bii bu fekkee luy war a gàllankoor wala lu lëndëm lu sa leerul. Mm-hmm. si mbaaxu yàlla yàlla mën na ñëw ak ndimbalam ba macha allah am loo sa xam ba nga randal ko. Mm-hmm, mm-hmm. fa taba yooyu yëpp ni ko sama waajur waxee woon ndeysaan dafa am ko ma tàggu ne di tukki mu ne ko soo demee oto ba ba nga fekk moran bu sa dugg xam nga soo ko nit sunu jamono ji ah ñii no compliqué trop oto baa ngi nii war a dem man ma nar fe nekk ba kañ loola la ni wax waaye dafa ñëw topp ndigal moo tax ndigal lu am solo la am solo la ni ko sang ba doon wax nan la ko doon waxee ñett ndugal digal ndugal ak ndigaale ak ndigaale <laughs> ah, nee na ndigal moom ak ndugal ak ndigaale <laughs> nee ndigal soo mënee defal boo mënul jéemam mhm. jéemal ndigal mhm. diggaale soo mënee defal waaye boo mënul baal mhm. waaye diggaale soo ndugal nag soo mënee bul def boo mënul bul jéem lu muy lu am solo ndax benn ba njariñu ya yëpp yow yaa ko moom ñaareel ba xaj na da ngeen koy partagé ñetteel ba nag sa dara sa daraay njariñ nekku si moo tax mooy ndugal ndugal moom mu ne soo mënee bul def boo mënul bul bul deful bul jéem. Eh, Iba Mar dafa jàppandi de 104 79 17 gannaaw bi ngeen defee 70 104 79 17. bi mu ñëwee fekk oto taxaw. mu ne comme kilifa gi jox na ma ndigal. oto ba taxaw bu ma sa dugg mu xaar ba booba fees beneen dem. bi demee ba sa yoon nu fekk oto booba raawoon am tolof tolof si yoon kon nuy xam ni gën ni gën a wormaal ñi yàlla jox cër. Mhm. tey gën di top ndigal te muy luy xaw di tumurank nak cheikh tidiane bismillah eh. alaykum assalam wa rahmatullah ñu ngi sant bu baax yaram alhamdulilah jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant bu baax waaw wàcc ma jàll si jërëjëf jërëjëf. maa ngi koy bu baax a bu baax ak maa ngi di fay lu bari alhamdulilah. jërëjëf mbokk bi woote kan la. mbokk bi. ah dafa mel ni dem na 70 104 79 17. lan ngay gën a ñaaxee bisimilah. bisimilah. bisimilah. allo maa ngi dégg. waaw bisimilah. sëñ waaw kañ mbokk bi. Cheikh Tidiane. ah Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay nuyu di lay siyaara. waaw maa ngi lay doon ziar jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane la. Euh, ah. Abbas ah, ah ndeysaan ndeysaan Cheikh Ahmed Tidiane bég naa ma sëriñ bi sa papa. waaw mu ngi mu ngi nuyu bu kontaan na trop jërëjëf jërëjëf yal na yàlla barkeel la. yàlla yàggal leen lu bëri. amiin yàlla yokk xéwal yi. amiin amiin amiin barkeel njaboot yi. amiin jaaree ne ko bég naa lool si moom yëg naa cofeel gi ma am si ñun waaye am na gu ko piis si moom. incha allah bu soobee dinaa ko wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seck jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf Seck Ahmed Tidiane. 70 ngeen di jaar tey 104 79 17. tey Wadduha siyaara la ndax dañoo xaw am tuuti tardement Cheikh Ahmed Tidiane moom daal mu mel ni nawaafil bi nga wax lu mat a bàyyi xel la mhm. mbokk yi war nañ ko bàyyi xel bu mhm, baax a baax a mhm, baax kilifa gu baax day ñaan uh-huh. wala ñaan ak ko paxeb bisimilah continuer la <laughs> bisimilah waa kañ yaram jaajëf ñu ngi lay siyaare jërëjëf yal yàlla nangu di la ndokkeel di siyaare seen Cheikh Tidiane moomu ñu lay dellu siyaar bu baax di ñaan yàlla dëgëral seen taxawaay. amiin amiin lool amiin amiin amiin. émission Wadduha ñu ngi koy déglu fi ñu toll di ko wétali ko nag. jërëjëf jërëjëf. boobu ba léegi maa ngi def la tout pour dugg fu ne jaar naa foofu dëgg yàlla. wallaay wallaay ndeysaan a métti tuuti quoi. dëgg la dëgg la kii woote kan la. ah Habib Mbaye yoo xam. ah sëñ Habib. <laughs> yal na yàlla barkeel la ah Mbaye. ñu ngi wétali ko émission bi. yal na yàlla may la barke Duha. jërëjëf Mbaye. jërëjëf. émission bi di leen ci gunge bu baax a baax. jërëjëf bég nan bég nan Mbaye. te loo si wax rek loolu lépp na yàlla na yàlla nangu lépp. jërëjëf sëñ Abibou. waaw te guddal sa fan nag. amiin suñu suñu suñu mbokkam Jurbel boobu lu mu seede si yow lu mu seede rek bàyyi na lu baax nga ko ci yàlla. jërëjëf jërëjëf Mbaye. waa ndax yoroo yoroo sa xam-xam denc ka naan ku ma fekk diwaan nangam ak nangam ndax yaa ngi sant nit ñi loo xam ne nii jërëjëf lu baax la wallaay ndeysaan la ma doon fajar bi di metti mais su ma jullee fajar ba pare yàlla na wallaay wallaay ndeysaan a saafara si <laughs> loolu la ñu wallaay wallaay wallaay wallaay man baax na am na am na solo trop loolu la ñu yéene wallaay mbay mbay mbay yàlla yokk sa yàlla na la yàlla fay yiw amiin amiin amiin Mbaye yàlla guddal saw fan. waa mu la ñaanal sax yàlla na ko yàlla na si yàlla teg. amiin fan wér ak juróom. amiin amiin Mbaye. waaw ñu ngi lay ñaanal loolu yàlla rek la. amiin amiin Mbaye Mbaye. kontaan nañ trop sëriñ Mara jërëjëf jërëjëf amiin amiin amiin Mbaye Mbaye. wallaay wallaay wallaay jërëjëf Mbaye. yàlla na yàlla barkeel jërëjëf jërëjëf. amiin jaajëf jaajëf. ah barakala fika sëñ Abibou macha allah doon auditeur numéro un laa koy tuddee tey <laughs> bu Wadduha fa tabarakallah yan yàlla barkel ko sëñ Habib mu nekk Habibullah bég nañ lool mbay <laughs> xam naa sant bi moom macha allah moo xaw a nu mu tuddati waaye macha allah <laughs> eh, bismillah bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na nu ngi sant alhamdulilah baax ngi sant bu baax yaram alhamdulilah waaw ah, dañu kontaanoon ci waxtaan rek. moo tax ñuy far di siyaare bu baax baax. jërëjëf yal na yàlla barkeel. jërëjëf jërëjëf. baax na jërëjëf. mbokk bi. 70 104 79 17 ku dugg it boo amee lu mu bëgg nu fàttali kon te ko wala lu mu bëgg a yokk ndax comme daara la Wadduha mhm. daara la macha allah lépp luy jariñ doomu aadama si kattanu yàlla. dana yéen di fi wettali konteeg mbokk yi comme ni ko sëñ Habib waxee bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bis bisimilah. sëñ Babacar. ah sëñ Babacar nu ngi siyaare mbokki Risatol. Risatol ngay dégloo rajo bi nii. allo sëñ Babacar.

Euh, sëriñ Cheikh Sylla. Elimane Cissé. Eh, sëriñ <laughs> Cheikh Sylla ñaar yi jiitu de moom macha allah. <laughs> allo. waa sëñ Sylla. non du la. ah macha allah Cissé waaw waaw Cissé. E-, Elimane Cissé taximaan. ah ndeysaan Cissé Cissé. siyaar nañ leen baax a baax. Cissé yàlla yàlla nangu Cissé. yàlla yàlla yokk jàmm ji. amiin seen thème am na solo trop. jërëjëf Cissé. dañ koy jël ci jamono bu ne. Mhm. yal na yàlla dëgëral leen. amiin amiin Cissé. barke amiin Cissé. yàlla yokk rajo bi. amiin amiin amiin. di jaay nag yu Moustapha. amiin amiin Cissé. kontaan nañ trop trop trop trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Cissé jërëjëf. macha allah jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf Cissé jërëjëf. barakallah fika 70 104 79 17 mbokki sëriñu daara yu ñuy dégg. Mhm. ku si dugg bëgg am bëgg loo baaxee. mbokk yi ndax loolooy. Mhm. Wadduha daara la fa mhm. tabarakalaa. loolu la ñu yéene. Eh, macha allah képp ku si dugg rek boo mënee am loo. wettali konte mbokk yi. bisimilah bisimilah. asalaamaaleykum. salaam wa ñu ngi sant bu baax yaram. waaw ah, ah, ñu ngi nuyu si Ahmed Tidiane moom. ah jërëjëf lay dellu nuyu. Ibrahima Niang Ibrahima Niang. ah jërëjëf ñu lay nuyu. sëñ ah, fay bu baax Cheikh Ibrahima. la. jërëjëf ñoo la raw ñoo la raw ñu ngi déglu waxtaan bi. mbaa yaa ngi mbaa yaa ngi fasaaleel. waaw ñu <laughs> alhamdulilah ñu ngi sàkk si yow ñaan yàlla xam na ne ku leen sopp la ku leen. walaay ndeysaan walaay ñang jërëjëf ñang. waaw chaque fois dama leen di topp. di leen di yàlla yokk barke bi amiin amiin amiin. waaw ñuy sàkk ñaan di di rafetlu émission bi trop bu baax. di jërëjëf jërëjëf sama mag boobu dugg léegi mbay ñang. walaay ndeysaan walaay walaay. di ko ñaanal daalam yàlla yàlla yàlla na barke fan waaye. amiin amiin ñang amiin. barke alxaan kontaan naa trop. jërëjëf jërëjëf ñang kontaan nañu baax ñang. man jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñang ñang macha allah yàlla yokk leen barke sëriñu daara yi. macha allah ñuy jar di ñaanal lan. sëriñ bi allo. bisimilah. waa sëñ bi. waa keñ mbokk mi. waaw waaw man la Cheikh Tidiane waa Soxna Tidiane. Seck waaw Seck. allah baax na dinaa si ñëw léegi bu neex yàlla. 70 104 79 17 si Ahmed Tidiane nga marqué ma boobu xam naa wala nu ñëw si rek. waaw comme ni ko sëñ bu waxee. ki si yoon bi bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum waa kañ mbokk bi. mbokk bi. ah Gaye. Gaye yàlla na yàlla nangu Gaye Gaye. te ñoo ngi dolli ñaan di ñaan yàlla guddal fan bi bu baax amin amin Guèye amin bi wéral xam-xam amin amin amin Guèye ñu lay sant ñu lay gërëm jërëjëf Guèye jërëjëf waaw ndax amul rëcc wuñ dara dara dara dara dara dara si yow wallaay ndeysaan waaw nañ la ñaanal yàlla guddal fan yi a dugg maanaam sax ba dugg nañ. wallaay ndeysaan wallaay Guèye. wallaay waaw de xel mais xol a ngi xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax Guèye. kenn nga ko xam si kenn nga kenn nga fi rek. daal naa mën a kenn nga fi xam xam nañ ko Guèye. waaw gis ko mel ne yow jafe na tamit. wallaay yal na yàlla na kóllëre gi. waaw dëgg la adduna yaat na trop trop trop waaye man de man laa wax man gis ko mel ne yow jafe na trop. wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf Guèye. fan fan baax daf maa yéem. jërëjëf Guèye. waaw ñu ñaanal rek yàlla guddal fan bi. waaw man mënu ma dégg mënu ma waxee sax ci téléphone ngay wante daal. wallaay wallaay yàlla guddal fan jërëjëf jërëjëf. ñu ñaanal Cheikh Cheikh a xam Gaye ah, Gaye fekk na. ñu wootee bu ñu dikkul yëpp ñaa ngi si daal. wallaay xam nañ ko xam nañ ko toog ndax ñu xaw di kii bu ñu bu baax Gaye xam na bu baax yëg gi ak cofeel gi ak yéene bi lépp xam nañ ko jërëjëf wallaahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañ trop wallaahi Serigne Gueye jërëjëf waaw su ma la déggee rek damay dégg ma la déggee rek damay dégg wallaahi ndeysaan wallaahi waaw lépp lépp lu nekkoon ci xool bi lépp lu ci lépp day seet di wécc wécc macha allah wallaahi wallaahi Gueye Gueye ana jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah Gueye <laughs> 70 104 79 17 macha allah sëñ Gueye bu Tëngéej. Tëngéej maa ngi koy ndokkeel bu baax macha allah di koy ñaanal. di ñaan yàlla def ko mag. amiin amiin yàlla sàmm ko. yàlla yàggal ko ak ay wayjuram. ndax macha allah dafa am loo xam ne amul njëg te mooy cofeel. cofeel te yëg nañ bu baax cofeel gu ma am si ñoom. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. alxaaji Modou Gueye. 70 ngeen di jaar tey 104 79 17. ni ko sëñ abi bu waxee woon dama waxoon fatihatul kitab mm. waxoon na feebar tur la rek mm-hmm. képp ku yëg ne am nga tawat mm-hmm. te comme ni ma koy waxee muy jafe lool ngay gis nga wàññi fukki nit te du am juróom-ñaar ñu si amul lu leen di metti mm-hmm. amaana juróom-ñaar wala juróom-ñeent wala amaana fukk ñëpp sax ku si ne yaa ngi am lay tawat dama wax ne tawat mbindeef la ak nu mu mën a tudd ak fu mu mën a tollu borom bi ko yebal si jam saa yu ko yebalee rek mu moomaat boppam mhm. ma ne ku man fajar ndox ba ngay njëkk a naan nga jàng ñeen fukki bas bismillahi rahim fukki fatihatul kitab mhm. ba mu jeex mhm. nga of ko sa ndox ba bu la soobee nga def yokk sa ndox yendoo koy naan bu la soobee nga naan sa ba di muy ndox bu jiitu see biir bépp feebar bu mu doon si kattanu yàlla képp koo dëkkal da nga si yëg tawfiix mm-hmm. te billaahi la si laa ilaha illa huwa jot naa ay appel fu nekk mm-hmm. si doomu aadama yoo xam ne amoon nañ tawat mm-hmm. mu mosuñu gisee sax nu woonu duñu si ñaanal duñu si ndokkeel fa tabarakalaa te nen koy waxee yéene bi képp ko xëccal robina war ko bàyyeeg caabi mooy tax fépp fu sunu kàddu jibee fépp fu sunu kàddu jibee rek dañuy yéene képp ko sa ku ko ku tombee kàddu gi mhm. mën a am loo xam ne bi danga sa mën jariñu mhm. loolu mooy sunu yéene mhm. loolu mooy émission Duha depuis 2011 ba léegi fa tabarakallah su ngeen di duggee si www point wadduha point org waxtaan wu ngeen sa ubbi rek da ngeen sa mën a dégg loo xam ne bi lu leen ni luy leen di jariñ la wala lu nuy fàttalikonte ak mbokk yi fa tabarakallah di wax ne loolu mooy yéene bi

Wadduha taxawee ba léegi. Mhm. saa yi bu émission bi amee rek. Mhm. tabaarakallaahu lépp lu doon def da koy bàyyi. wallaay wallaay amul dana ma wala mu woo ma ne ma. mi déglu nanga mooy nanga macha allah ndeysaan yàlla yàlla yokk ko barke ku am cofeel la moom loolu mbégte la te nin koy waxee almaru maaxaman mhm. fa nit ku nekk la farak yow nag da ko war a faroo tamit da war di koy ñaanal mooy tax macha jullit ñëpp la ñuy ñaanal waaye dañ si jiitu ñi nga xam ne bi nooy bëggee Wadduha. Hmm. bisimilah bisimilah ki si yoon bi. sëñ Maram. waaw bisimilah. waaw man Habib maa duggaat Habib Mbaye. waaw sëñ Habib. waaw jaajëf di kontaan rek di gën a kontaan rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw mais euh, Wadduha solidarité kii boobu nga waxoon solidarité. Wadduha solidarité waaw. waaw moom laa bëggoon bëgg see participer daal. incha allah si kàttanu yàlla. waaw waaw képp képp kuy auditeur nag moom maa ngi lay ñaan moom nga dugal ci sa loxo ndax. yow li ngay def pour jaami yàlla yi. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw ndax utoo yàlla bu doon alal nga si wut wala leneen sa xam-xam bi nga yor di denc bu baax. wallaahi sëñ ñëw nag nga am na nga jëflante moom. wallaahi wallaahi waaw ndax ndax nit moom nit rek la mën a doon te yow ku dégg sa kàddu xam ne ko dal nga ku baax nga. boo déggee yàlla jërëjëf jërëjëf mbay yaakaarloo ñu nag waaye damaa génte gis na nga nekk si jàng wallahi alazim yàlla moo ci conférence wallahi ndeysaan wallahi billahi la ilaha illa huwa nga nekk si conférence bi maa ngi toog fu naan këli sëñ mara te man mosuma la tëg bët wallahi ndeysaan dëgg la loolu nag daf ma daf ma marqué moo tax ma fonk la trop émission yi nag rajo yi damay déglu mais almadina fm moom bi nga jógee si Wal FM ba bi mu amee problème astafurlah ba léegi nga nekk Almadina FM moom maa lay déglu di la topp nag wallaahi ndeysaan wallaahi waaw te nag moom lu mu fi jëlee rek yàlla na doon jiw amiin amiin jaam yàlla jaam allah si kattanu borom bi moom lépp lu soo waay barkeloo rek bu ñëwee sax Ahmed dana ko jël le 28 bu nekk la ñuy seet lu fa nekk nu seet ña sëñ tombeel nu mu ah, ah, ah. baaxee leen ko si kattanu yàlla si kattanu amul benn problème mm-hmm, uh-huh. 嗯。 xam naa moom dinaa def la tout moom ba ñëw diwaan waaye maa ngi ñaan de nga ñaanal bu baax. incha allah incha allah yal na gisee bi yomb tabarkeel waaw moom saytaane moom day topp dañu mel ni ku ñu bañ leen a. wallaahi wallaahi ñu ñu jege leen ndax ñu mën a jub. wallahi ndeysaan wallahi wallaay loolu yal na yàlla fay la. amiin amiin Mbaye amiin waaw ñu ngi leen topp seen jiw. jërëjëf barak la. Eh, sëñ Abibou Mbaye premier auditeur fa ah. yàlla yàlla ah, ko bisimilah. bisimilah ah, émission Wadduha. waaw émission yal na yàlla nangu. ah jërëjëf. waaw ah, ñu koy wax Adama jërëjëf. waaw di dëkk Cambérène. jërëjëf. waaw ah, jërëjëf waay. jërëjëf yal na yàlla barkeel la. amiin amiin amiin. jërëjëf jërëjëf. waaw ah, jërëjëf waay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakala fik. 70 104 119 17 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mara Babacar Sall kër eh, maa ngi lay siyaara. yaa ngi fi jàmm ak waa di rafetlu émission bi. Ah, ndeysaan kontaan neex na. na ngi siyaare di siyaare xalifa bi. amiin maa nga yor xam-xam te foofu ci ci ci bu bëri. wallaay ndeysaan. ko wante de foo yaa ngi ñuy xamal lu bëri yàlla xam na ko. wallaay wallaay yal na yàlla barkeel lépp yal yàlla barkeel lépp. amiin ah, si kattanu borom bi. Ah, a baax. wallaay ndeysaan bég nañ lool jërëjëf. jërëjëf eh, jama xewal. fika. Ah, yal yàlla barkeel ko. 70 104 79 bismillah bismillah bismillah 104 119 17 gannaaw bi ngeen defee 70 70 104 119 17 Samed Tidiane. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, fa tabaarakallaahu di delloo mbokk yi nuyu ziar bu baax a baax. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu mooy euh, li ñu doon wax rek ci naafila boobu. pour mbokk yi gën koo bàyyiwaat xel baax. ak am solo. Eh, xam kii boobu xale bi la lay masruran masururan gannaaw Fatiha rakk bu ñek bi téeméer. Mm-hmm. rak ñaara bi gannaaw Fatiha wala saw fa rabbuka fatarda mm-hmm. ñaar yoy ko ku am mm-hmm. barke barkeb loola rek sha allah. lepp lo ti dana yomb dana sakanta dina barke te barke lepp nak Nama ko waxe ne nan di farlu ci compte barke. tay jamono bi sha allah xaj compte bancaire lañu beuri gëna gën mais compte barke. compte barke Cheikh Ahmed Tidiane mooy lépp. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. compte bar bancaire. macha allah lu fay jóg day wàññiku waaye compte barke loo fi gën a yàgg rek. barke day gën a yokk kon nan koy sàkku bismillah. bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah. Abdoulaye Guèye sëñ Dan. Sëriñ. 70 104 79 17. kontu barkeel loo gën a yàgg nag loo gën a yàgg barke ba yokk mooy tax ni ñu koy waxee bari le barke la ko gën nan gën a sàkku barke te fa laa te bunt ba yépp doon way jur fexe am seen ngërëm ak seen ñaan waaye warmaal képp ku yàlla bind rawatina ku yàlla jox cër dinaa koy wax lu bari bari da nga gis koo xam ne la ko yàq amaana bàyyu sa xel sax def sa attention mm. eh, bismillah si yoon bi 70 104 79 17. da nga gis koo xam ne la ko yàq amaana sax bàyyi sa xel. Mhm. te mbedd mi lu ne defee ne Cheikh Ahmed Tidiane. mooy tax dajeeg nit nit koy dajee rek. Mhm. boo doon ne nit ñi dañ leen ni jëmmal nañ leen jox jëmmay gaynde mhm. si war ma. na xamoo lu yàlla nëbb sëy kooku. te ñëpp ni koy waxee. ñepp nitu yalla lan nitu yalla lan mhm. waye nit ak yalla dafa am <laughs> nit ak yalla bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yal na yàlla nangu sëriñ bi alaaji jaañ parfait ah sëñ alaaji maa ngi la doon nuyu léegi <laughs> jërëjëf jaañ karaw jotoo am rediffusion bi karaw mardi waaw ah, waxtaan ko pour macha allah ah jërëjëf jërëjëf kontaan trop macha jërëjëf Diagne yal na yàlla barkeel la. Eh, amin amin Diagne. amin Diagne amin. Ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ah, macha allah jërëjëf allah moom bokk na si soppay Wadduha yi mm-hmm. macha allah yàlla jog fagul gisee may macha allah toujours mu ngi topp émission beeg di laajte kañ lay rediffusion di am. Mhm. ñu ngi ko ñaanal bu baax. di ñaanal yàlla may ko barke Doha. 70 104 79 17. ni ma ko doon waxee woon ne nitu yàlla ñëpp nitu yàlla la. Mhm. ndax am du kenn am doo gis kenn koo xam ne moo créé boppam. Mhm. te borom bi mooy jëla jëlaaluhu waaye nit ak yàlla. loolu leneen la. te loolu dafay faral def mën nay nëbbu. Mhm. mën nay nëbbu si bët. Mhm. ba si ñi nuy tuddee na ma yàlla baal si kàddu gi dof. Mhm. da gis koo xam ne macha allah ku yàlla dimbali la. ku te amaana la nit ñiy gis la nit ñiy gis moom mooy kii dof la. fekk dafa tabarakalaa ku yàlla defar la. mooy tax nan di wormaal képp koo xam ne doomu aadama la. ndax borom bi njëkk warmaal doomu aadama si wala xat karam naa ba ni aadama mm-hmm, mm-hmm. loolu danay guddal fan sax na tijaan ah, doom yàlla na doom yàlla nag nga gudd fan mm-hmm. ak ni ko sunu bàyyi joxaane di waxee yàlla na sab lal tooy jigéen joo koy <coughs> mooy jigéen bu lalam dee tooy rek njaboot kon xale boo ko yàlla na di tooy mooy ñaanal nga ko mu bëri ay njaboot fa tabaraka laa <laughs> te njaboot moom eh, eh, bi waaw tubaab naka moom loolu yëpp wuyul ma tubaab boobu. bisimilah. <laughs> nee sawa nag moom. allo. mbokk mi na ngeen def. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. <laughs> waaw. ñaa mhm. ngi kii. jërëjëf jërëjëf la. Ndour sëñ Souleymane. Ndour Souleymane ah, li ma la waxoon fa si toll. ah. la ma la doon soññ fa si toll. waaw <laughs> ah, maa naa fa ñëw moom yéeme na moom. <laughs> ah sëñ Souleymane ah. <laughs> Ah, baax na kon baax na ba nu gisee. waaw naa fa ñëw moom. Cheikh ñaanal ko ma fit boobu loolu laa koy wax. yéeme na te tam dimbala ñaan yal na yàlla tànn la soxna te bañ may jabar. يلا يلا jërëjëf jërëjëf Iba Mara ngi lay ree di tontu woon si li ma la wax de si technicien bi mu ngi mu ngi lay ree laa wax Iba Mara yàlla baax na baax na ñëw incha allah ñëw jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkel macha allah moom it auditeur bu doxal la macha allah depuis siiwal sëñ Souleymane Ndour bisimilah allo allo bisimilah allo bisimilah bisimilah waaleykum salaam wa rahmatulah allo bisimilah. waaw ah, na sant ba alhamdulilah. yéen a ngi si sant yàlla bu baax alhamdulilah. ah ngi déglu waxtaan bi neex na trop macha allah. Mm-hmm. jërëjëf. Ah, neex na trop. jërëjëf gis mm-hmm. la nekkoon te sax yaa ngi ciy jëriñ jaamu yàlla yi daal. jërëjëf yal na yàlla barkeel lépp yaram. jërëjëf. jërëjëf 70 104 79 17. fa tabaarakallaahu mm, laay biir bi nga doon wax it lu am solo la. mu ci di bàyyi xel jaamu yàlla yi. Mhm. Eh, te jaamu yàlla moom boo bëggee jariñu ci moom rek comme ni nga wax rek koo gis rek jox ko cëram. walaay ba ba yàlla wax ne wala xadd karam naa bani aadama rek. Mhm, mhm. foofu la wax ji jeexee. moo tax jaamu yàlla boo gis rek. Eh, wàcce ko wàcc waaye wala xad karam naa ba bani aadama mhm, mhm. waaye itam nga jàpp ne fa sa xol ne mool ak nu mu mën di mel nga jàpp ne moo la gën ci yàlla mhm. parce que loolu mooy manduti xissa boo xam ne daf ma xaw a mokkalu ma ko mais xissa ba am solo la si kin waxoon ne képp ku am dàllu dof eh, dana am loo xam ne moom lan lay jox nu wax ko man samay te yëpp gis ñan ñuy wooyee nu yàlla baal ma si tur bi dof mhm. ma leen di wër mhm. yow moom nga ne ah man di dëkk bi njort naa ne man maa si gën a xayadi nga jël sa dàll ne yow gisuloon ku la gën a doyadi ci dëkk doyadi mhm. loolu macha tolluwaay la tolluwaay la si nit képp koo gis rekk war maal ko jox ko cër ngir ki ko sàkk ngir li mu doon jëm banni adama doomu adama koo gis rek doomu aadama la fa la mooy tax warmal ñëpp jox jër ñëpp mhm. suturaal ñëpp mhm. danay bëri tax barke di yomb rawatina si xelel yi mhm. macha allah yenn mooy loo ko mokkal mokkal ak loo ko tàmm tàmm sooy wax ak koo xam ne bi mag la nga warmal ko eh, nga macha allah ñi ni ñi ni sunu rakk ak sunu jarbaat yi li ñuy tuddee emprunté. Mhm. yenn saa yi da dégg si ñoom yenn mooy yu doy waar. Mhm. fa tabaraka la man amaana laago la. Mhm. waaye képp ku mag rek foo xam ne féetale na mag rek nga wormaal ko. wax ak moom wax ju teggi mooy tax sa oto mën naa am ku ne siy dugg. te nit mën na say dugg fees dell ak euh, baatin wala mayu yàlla. di génn sànni la ñaan ñaan googa dal la. loolu yi nu koy bàyyale xel mhm. bu dee commerçant bi kasali ko mhm. dafa nga kii ma benn waaye doon nettali ne mhm. e, kii emprunté bi góor gi def ko laaj paas ñaata la mu ne ko peer paas taw la mu ne ko ah man de sama doom taw ma damay wis. <laughs> góor gi wax ko fa. mu ne ko tawuma damay damay wis xam nga <laughs> taw bu ma jumul mooy cent franc. wala ci mooy mooy. taw mooy mooy mil ah waa kay mënoon na ko ni ñaar téeméer hmm. moo gën a moo gën a taalibe wu mënoon na na parce que paas ba ñaar la waaye taw la <laughs> fa tabaraka la waxil la rek si ne am na moo yu bëree bëri bëri nu am nu ngi koy tàmm te macha allah euh, bëriwul yi teggil hmm. nuy jéem di koy di koy di koy may di yokk war ma lay sunu yéene ak la nu bëgg a wax hmm. mooy nan yokk war ma daal si doomu aadama mm-hmm. rawatina kilifa mm-hmm. macha allah ndax danay waral mayeeg mayeeg defaru mm-hmm. li ñu bëri bëgg it muy bayre macha allah fexe mag moo dajeel am ñaanam mën na koy maye fa tabarakallah jiital si waajur yi képp koo xam ne bi moo la féete kilifa fa tabarakallah 70 104 79 17 xam naa sama sunu Ibamar amee lu ñu jëkkatil bu mën a ñëw si lenn si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 yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo muhammadu rasulullahi su la yàlla mayee baat bu neex macha allah sëriñ Bara Diouf moom it ñu ngi ko bu baax si Mouhamadou Rasulullah sallallahu nga xam ne depuis 2011 mooy gunge émission Wadduha ñu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy si barke sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk koy xéewal ak teraanga waaye di nuyu bu baax tey siyaara alxaaji fàlluka dégg naa nga ma koy nuyul nga xam ne mën naa ne mooy sama bunt ndax boo ne buntu li sa Seydina Limaamu Laay soo wàccee fa tabarakallah alxaaji fàllukaay lay gindi pour nga xam dëkkuwaay bi mu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara bañ ne ba def benn tablo benn tableau boo xam ne boo yéeg montagne bi rek da nga gis tableau bu nu bind Kër Mara Cissé Touba téléphone Kër Mara képp ko gis tableau boobu rek boutique bu mu dendeel soo demee si moom dana la woon dëkkuwaay bi te loolu lépp ak passé fam la ñu ngi koy ñaanal moom it fa tabarakalla yàlla yokk ko barke yàlla defal ko njaboot tamit yàlla yokk ko yàggal ak ay way juram seex ma Tidiane ñu ngi koy delloo nuyoo ko ziar bu baax sëñ Fadilou Ka tabaarakallah euh, mu mel ni laay biir bu am solo tamit defaan nga ko ci ñuy bàyyi xel jaamu yàlla yi mhm. fa tabaarakallaahu ndax kenn ku ne yàlla moo xam lam defan ci moom mhm. eh, am benn xisa bu ñu nettali ci eh, benn buur mhm. boo xam ne dafa tabaxoon palem mhm. te tabax pale boo xam ne pale bu rafet la macha allah léegi bi pale bi pare mu daal di def benn fête daal di organiser architecte yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono boobu moo invité architecte yëpp daf benn fête bu bu bi ñuy feetee noonu ba mu yàgg rek am benn waay bu dugg si daal di sol mbubu mu xaw woyof lool lool lool. Mhm. fekk boobu architecte yi kenn ku ne da lay jox kàddu nga wax nan nga gisee pale bi parce que ndax am na sikk parce que bu amee lu ci sikk rek moom ñu toj ko defaraat mhm. ku ne wax ku ne ku ne wax mu yàgg nee na am benn waay bu ne dara daal di dugg si. Mhm. nee na xaw a sol mbubu mu xaw a woyof. ci gisin rek. Euh, bi mu ñëwee léegi nit ñi commencé. ko doye dal di ko dàq ak mm-hmm. yooyu mm-hmm. léegi buur bi ne bàyyi leen ko mu daal di ñëw mm-hmm. buur bi ne ko waa yow euh, lan moo xew da ngay architecte mën na ko déedéet mën na ko comme que doo architecte loo looy looy def fii man architecte yi rek laa fi invité pour ñu xoolal ma sama palais bi ba xam am na lu luñ ci war a rectifier wala déet mu ne ko dama laa soxla woon ndax man nga man nga maa may moom mu wéet yow mu ne ko waaw mu ne ko amul amul problème léegi ñu daal di wéet bi ñu wéetee. mu ne ko sa pale bi rafet na lool mais man benn sikk rek laa ci gis. maanaam malakul mawt bu la bu la soxlaa fa muy jaar bu ñëw jël sa wax gi sikk boobu rek moom laa gis ci pale bi. <laughs> Eh, nak naka la ko waa ji wax rek bëggatul dara dara dara ci pale bi. wallaahi allah men xel mi yëpp delluwaat ci yàlla. wallaahi wallaahi delluwaat ci dee. wallaahi moo tax lool moo tax jaamu yàlla boo gis rek. bàyyi ko xel xam nga ne loolu wilaaya la. wilaaya la ne ko jaamu yàlla boo gis bàyyi ko xel. Mm-hmm, mm-hmm. dafay nekk loo xam ne lu lu. jàngal ba am solo ne ko lu am am solo. Eh, eh, fa tabaarakallaahu Euh, bëggoon da nga koy gis si maison riche et peu si mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. internet yi ñaare. da ngay gis kër gu taaru lool dend kër gu doyadi. waaye ñu ne ñoom bu nu fi bàyyi ko seen kër kenn koy xam ne. yëpp benn lay doon kon kër. fa tabarakala kër googu moo mooy lépp fa tabarakala <laughs> loolu njàngale bu am am solo la Cheikh Ahmed Tidiane 70 54 79 17 seen émission Wadduha fii ci Almadina FM kon xam naa ñu fàttali mbokk yi rek lenn ci pharmacie bi. Mhm. Euh, euh, fa tabarakallahu pharmacie Wadduha. Mhm. Euh, kitaab Wadduha. di wax ne si bu nu yàlla dimbale lu yàggul dara dina mën a mën a am tamit ngor. Mhm. fa tabarakallah ñoonu fa man nekkal si kàttanu yàlla. ngor si lu yàggul dara incha allah. comme ni ngeen koy amee point 1 fa tabarakallah ni ngeen koy amé tengej ni ngeen koy amé sa ji di way sunu ni ngeen koy mëna amé mbour tamit mo ngi leen nuyu bu baax madame nya ak sëñ yahya ak soppe yi nek mbour sali Carrefour yépp mo ngi leen di nuyu di nuyu daaray yi waddu haaji nek fa tabarakallah si kàttanu yàlla sunu yàlla dimbalee incha allah da ngeen ko mëna am ngor comme nonu ngeen ko mëna amé si daara ja te dekk way bi di way buntu lycée Seydina di nuyu bu baax tamit si Ahmed Tidiane Alhaji Konta. Mhm, Konta <laughs> di koy ndokkeel si. macha allah ci tur bi Alhaji Modou Konta fa nuyu koy nuyu bu baax. Mhm. waaye di nuyu Kalidou. Mhm, Kalidou fa sëñ Kalidou Ba. moom di way jur si Alhaji Modou Ba. fa tabarakallah koy nuyu. sëriñ Babacar Cissé. Mhm. Mhm. tamit di waajur si Alaaji Modou Cissé. Mhm, moom it ñu ngi koy nuyu. nekki noonu sëriñ A Cissé. A Cissé Boxobe doon waajur tamit si Alaaji A Cissé. di turandoo tamit nu ngi koy nuyu. nekki noonu sunu xalifa. di alhaji Modou Cissé di alhaji Modou. moom it di waajur si alhaji Modou Cissé bu Njaareem. moom it ñu ngi koy nuyu ñoo ñëpp doon ay jaamu yàlla yoo xam ne dañu noo dippee seen i doom. te teraa nga gënu la rëy loolu. Mm-hmm. teraa nga gënu koy rëy. Mm-hmm. mu ngi leen di nuyu di leen siyaara di la ñaanal. di mm-hmm. ñaan yàlla barkeel njaboot gi yëpp fa tabarakallaa. amiin Euh, di fàttali mbokk yi rek ne euh, pharmacie Wadduha mm-hmm. mm, bu ñëwee danañ ci fekk kitaab Wadduha mm-hmm. kitaab Wadduha la mm-hmm. doon livre boo xam ne 313 pass la bëgg jaam ñëpp jariñu si moo doon waraloon yéene bi sant yàlla ba nu yàlla mottalalee yéene bi si muy mu jàppandi am fa tabarakallah sant yàlla lool tamit bi ko yàlla defee si xolu nit ñi ndax su yàlla defee cinq continents yëpp yàlla def kitaabu wadduha dem fa loolu jalla jalaaluhu lan koy sante fa tabarakallah kitaabu wadduha comme nan nga ko waxee mhm. mu ngi si pharmacie Doha mhm. nekk 313 pass mhm. euh, am ay na nawaafil ay naafila am ay zikkar fa tabarakallahu ay xawaatim am ci gàttal daal lépp loo xam ne nit ki Mm-hmm. lu muy soxla ci wàllu dundam wala ci mm-hmm. wàllu jaamu yàlla lu koy mm-hmm. jëriñ àllaa xel wallaay wallaay ndeysaan yépp ci kàttanu yàlla bu ko amee muy français ak alxuraan waaw muy français ak alxuraan muy ak arab bu ko amee rek lu mu ci soxla dana ko fekk incha allah waaye ba tey itam di fàttali mbokk ne pharmacie bi tamit am na ci curaayu seytaane curaay yoo xam ne pour wàllu seytaane la wàllu àndandoog yooyu ci loo xam ne bu yaram mu nit ki diisee dëgg moo xam wàllu liggéey la moo xam wàllu ku rab dugg ak yooyu yëpp. Mhm. fa tabarakallah cuuraay la boo xam ne bu ci bu efficace la fa tabarakallah. walaay macha allah nee ko moom macha allah eh, nit ñi am na lu nu si gis. Mhm. ndax liggéey si lu day xaw nay jafe. Mhm. te loolu macha allah. ñàkkul dafa am lu muy leen jariñ te dafa am lu mu leen jariñ sax wax dëgg yàlla ndax moom na ma koy waxee ñam xam la macha allah mu mm-hmm. ne ko rawatina si ñi nga xamee ne bii seen guddi ñaare day faral di metti day faral di diis waaw danay dem ba ñi nga xam ne ñaare du am appétit mm-hmm. si bu nu waree ànd ak seen soxna mm-hmm. du nu am yenn yëg-yëg yi te bu dee buntu saytaane la moo koy waral sax si kattanu yàlla suñ ko day suuroo loolu dana dàq si ñoom guddi googu kon moom bëgg ñëpp di nelaw nelaw yu dal fa tabarakala moo tax nu indi ko si pharmacie Duha mhm. comme noonu nga koy waxee lu ba nekk téeméeri dërëm mhm. Mhm. ñi ko jël lay wax fa la ñi ciy seede de macha benn soxna ma sonn ma ko wax ndeysaan bi mu ñëwee ma sëñ si sa cuuraay bi de xaw ma lu tax nga def ko waaye. Hmm. ah dana bëri ñu mu dana de ñoo xam ne dootoo leen gis. <laughs> ndax cuuraay bi rek la ñu jël dem ma ne ko macha nan ko jëriñoo rek. waaw loolu rek ma ci am solo. <laughs> looloo yéeney doxa bi te macha allah. foog naa ñu xam na njor xam na ne ne du tirise depuis 2001 sunu yéene mooy ñëpp mucc ñëpp yokk fa tabarak la mhm. ba léegi tamit formation bi am na kiis mhm. euh, am na kiis moo xam mag la wala xale la mhm. moo xam ñi nekk ci entreprise wala ñoo xam ne ñu ci école yi jàng macha allah luy dalal xel fóot xol tamit fóot xel ba pare macha allah ubbi xel ñaari lan sa boole yoo xam ne yëpp lu ni naan la te muy lu am solo. Mhm. lenn la day raxas xel lenn la day dàq fàtte. Mhm. moom it mu ngi si pharmacie Doha bi Cheikh Ahmed Tidiane. ñu koy wecc ko 4500 mhm. moom gis nga. Euh, fa tabarakallahu ba léegi tamit pharmacie bi am na kii euh, gàllaaj oto. ñu protection pour voiture. moom it muy lu am solo. muy voiture muy scooter muy vélo gaal lu mu doon. lépp luy daamal rek. macha allah gàllankoor goo xam ne sunu wayjur yal na yàlla yokk yërmande si moom. yàlla xaj yàlla Cissé lanu koy jëlee macha allah muy gàllaaju daamar fa tabarakallah muy lu am solo moom it mu ngi si pharmacie doxee moom it ñu koy wecc ko quatre mille cinq cent mhm. am na tamit gàllaaju kër mhm. gàllaaju kër comme ni ma koy waxee kër yi nu leen di taaral mhm. ñu la ñuy taaral gannaaw ba mu taaroo si karo baak peinture baak décoration bi. Mhm. ñu koy taaral ba nga xam ne bii macha allah lépp luy sayaatin. Mhm. du fay sanc mhm. moo taxit ñu indi si pharmacie Doha galaaju kër. moom it ñu koy wecc ko ba léegi tamit pharmacie bi am na. galaj go xamni pour xale yu jigen yi la. Mm-hmm. pour waaw moom lañ tuddee gàllaaju galaj gàllaaju njaboot te dinaa di wax ne no tuddee xaritu njabot bi. Mm. samay jigen yu bëri damay tuddee boobu tour Mara ci sa xaritu njabot bi. motax mm. no nu indi leen si gàllaaju njabot mm. pour lo xam soko soo ko xelel wala mag bo xam bi amagul borom kër. du mooy yalla su dee def ko bëgg. waye su dee dañ ko ko forcer ko ko forcer du ko man fa tabaarakalaa loolu di mu ngi si pharmacie Doha. doon ne woo doon te woo jekku nan ko bu mu ko tiimee rek ay cëram day damm fa tabarakallah loolu nuy wax ñëpp si ne duy joteeg lenn euh, xelel bi ko def pour bu amee jëkkër fu mu ko xutbaalaay sëy rek loola day yàqu am ku ma laajoon ne ma sama soxna laa ko bëgg defal di kawteef <laughs> ma ne ko loolu du pour soxna waaye pour soxna it am na faw nu am jotaay loo xam ne képp boo ko defee Rahas si boo ànd ak moom képp ku ànd ak moom rek day yàqu fa tabarakallah la mu yor day yàqu fekk waxu ko ba nga am loo ko jox mu naanaale koog continuer mooy tax nan yokk mandu fa tabarakallah am na ñu bëree bëri bëri ñuy dox ba mu yàgg taxaw si góor ñi te la leen tax a taxaw loolu rek la loolu la fa tabarakallah ndax bëri na soxna yoo xam ne dañ leen di tookee bu dogul bu dul tookee santaane borom bi la mandu kon foto fa tabarakallah loolu nu ngi koy bàyyaale xel ñëpp si Ahmed moom mm-hmm. it ñu koy wecc ko quatre mille cinq cent mm-hmm. Mm-hmm. ba léegi am na ci pharmacie bi tamit euh, euh, dindi njabar waaw waaw ibtaalu sahir rek moom it mu ngi si macha allah loo xam ne pas-pas yi ak lu mu si sëf yeeg bu mu si mën a doon rek si kàttanu yàlla su ko jëfandikoo loola day toj te gàllankoor yu bëree bëree bëri si Ahmed Tidiane njabara ko waral si ña to taxaw man mënunoo déggal xayri si ñi nga xamé né bi lu nu am mu yàpp si ñi nga xamee ne bii du nu jox si lal ak bari na bari na bari na yo xamné euh loxo sihr mu ngi ci muy lu ëpp si dina ko wax né cëri doomu fas ba nga xamé né bi lenn du yëngatu dafa nga né ki ni ma koy waxé né ki am sét teud ak mom té yegul dara loolu yaa quelque chose. Mm-hmm, mm-hmm. fa tabarakala yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii xeetu pas-pas la. Mm-hmm. xeetu kortu la ak lu si mën a doon. wala ki nga xam ne dañ koo sànni dara. Euh, tànk ba mu dal sa tànk ba wala mu dal sa loos ba. wala bopp ba wala fu mën a doon. wala ki nga xam ne bii fa tabarakala ngelaw dugg na ko nekk si biiram. di yëngatu saa yu jant sooyee rek moom mu yeewu. ba fajar am na si ñoo xam ne fiy jant sooy rek ñoom tëdd nañ ba jant jógaatee tuuti na xaw am jàmm. ndax yooyu. yaram wu diis. wallaay wallaay yooyu yëpp doon ay sababu seer. si kattanu yàlla loolu si pharmacie Doxa ku ko jëfandikoo si kattanu yàlla. da lay rocc lépp lépp loo lépp loo xam ne bii xeetu seer la. Mm-hmm. sax ma jaar kon mu ngi noonu dina jabar bi ñu koy wecc ko vingt cinq mille francs mm-hmm. am na ba léegi tamit ci pharmacie bi euh, Bayra. Mhm. moom it tabarakallah muy lu am solo muy lu ñu bëri teewoo it mm-hmm. comme ni ma ko doon waxee léegi ñu euh, bëri ñuy sàkku Bayra te macha allah moo tax ñu indi leen si pharmacie doxa mm-hmm. bayre boo xam ne bii danañ koy weccee ñetti junni fa tabarakalaa mm-hmm. si kii bëgg bayre yaramam wala la muy jaayit bëgg mu yëngatu ndax Cheikh Ahmed Tidiane yenn saa yi mën naa di jaayandoog yow nu bokk lu ni jaay même qualité fa tabarakallah même quantité qualité mën nga jaay ba jeexal ne indi ma jaayal la <laughs> loolu macha allah wërsëg la waaye mën na doon yaa quelque chose mooy tax dinay baax lool ngay am looy laal dinaa koy wax fa tabarakallah ñu koy waxee yor butéel boo xam ne bi boo xëyee rek barkeelu si fa tabarakallah mm-hmm. ngir say ngir mën a yéwén sa surne neex mm-hmm. loolu day am solo Mm-hmm. di wax ñëpp it du yem fii pharmacie Doxa am na yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne nu ngi koy wàcc si kattanu yàlla. Mm-hmm. si xeetu ndomba. Mm-hmm. nu ngi koy wàcc si xeetu yeneen yoo xam ne bii nu ngi nu koy wax si luy woyofal yaram yi. boo seet sax na Tijaan na ko doon waxee tawat yi bëri na fa tabarakalaa te allahu saafi yàlla mi nga xam ne mooy saafara. nu dogu si alxuraanul karim nga xam ne mooy sunu wàccuwaay mooy su si la ñu yëngatu it. indi si pharmacie du xaat loo xam ne bii danay woyofal yaram yi. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii nu ngi koy pare si kattanu borom bi sama tijaan. Mm-hmm. Mm-hmm. ba léegi ci pharmacie bi am na kii euh, gàllaaj ju jigéen joo xam ne dafa nekk diggante. waa jigéen ju wérul. ju wérul waaw nañ koy waxee euh, fa tabarakalaa mu ngi si kiirlaay jigéen ju wérul. Euh, moom it mu ngi si comme na koy waxee rek am na médicament yoo xam ne si alxuraan la am. moo tax ñu indi ko si fa tabarakalaa gannaaw ba ñuy jël médicament. tubaab bi ñuy jël alxuraan ba benn xeetu sayaatin du mën a euh, yàq loola nu yor fa tabarakallah mhm. Seexna Tijaan mhm. mhm. kon daal pharmacie bi mu ngi noonu euh, bërëb yi nga xam ne tamit fa lañ ko mën a amee ku ñëw daara ja géejawaay euh, ci buntu sa Maam Limaam Laay wala mu jokkook alxaaji Moodu ci 77 617 70 44 77 617 70 44. wala bu wala même numéro boobu nu 104 mhm. bi 79 17 17 waaw. Mhm. moom numéro Mara la. Mhm, ku ci ñëw foofu rek lu bëgg ci pharmacie bi incha dana kam point E tamit am na euh, suñu am suñu ñu tamit ku fa wala nga ci 70. 922. 23 75. 70 922. 23 75 waaw da nga euh, boo jokkoo ak ñoom rek inshallah lo ci soxla momi it da nga ko mën a am. Mm-hmm. Rufisque tamit muy Tëngéej. Mm-hmm. Euh, ku jokkoo ak soxna Aram Ndiaye Aram Ndiaye euh, Aram Ndiaye. 77 262 36 28. 77 262 36. 28 kon yii daal mooy bërëb yi nga xam ne. wallaahi wallaahi kii ñi dëkkee boori mm-hmm. Mbour. Mm-hmm. Suwal ak euh, côté yooyu yëpp tamit. Mm-hmm. am na fa. si Sali Carrefour. Sali Carrefour waaw waaw incha allah bu ñu jokkoo ñu rek dana leen coordonné ak madame Ña. ma fa nekk fa tabarakalaa. wala sëñ Yaxya Ka waaw fa tabarakalaa moom it comme ñi dëkkee côté yooyu. Mhm. kon macha allah kon daal lii lañ doon baaxee mbokk auditeurs yi ci pharmacie bi. Mhm. Euh, lépp lu ci waay soxla rek bu ca demee incha allah. Mhm. Euh, dana ko am ci kàttanu yàlla. mën nga am bu dee dafa am ne si yoon bi bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. waaw def. na ngi sant bu baax yàlla. waaw yéen ngi si jàmm bu baax. na sant alhamdulilah. ngay delloo ziar bu baax jërëjëf yal na yàlla nangu. waxtaan bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yàlla ñu ngi déglu ñu ngi ñu ngi suivre waxtaan bi moom. ngi lay dégg baax yaram. Hmm. jërëjëf. jërëjëf yàlla fay la jërëjëf sëñ 70 104 79 17 seen émission Wadduha. Mhm. Cheikh Ahmed Tidiane bu fekkee da nga bëgg loo ñu mhm. bëgg noo laay biirante ku si ak mbokk yi. Mhm. ah xanaa ñu gën a bàyyi xel rek ni niñ ubbee woon rek. li ñaan moom bàyyi ko xel dafa am solo mm-hmm. mooy li arab yi wax rek alwiqaayatu xayru min al ilaaj wallaay ndeysaan wallaay wolof di wax naan fagaru moo gën wallaay wax ko ni ko tubaab bi waxee tamit <laughs> <laughs> wala da leen ni da ngay nëbbatu <laughs> macha allah lu am solo la ma nekk ko lu am solo la te mm-hmm. ñaan rek fi des nag Cheikh Tidiane mm-hmm. dinaa koy wax même dama koy faral di tooñee sunu mbokk yi nekk si àll bi mooy ñi nekk bitim réew nu ngi leen di ñaanal tamit ñoom it fa tabarakala di wax ne barab yooyu sutura ak ñaan rek fa des mm-hmm. ñaan moom macha allah jullit bi ñaan rek la am ndax àddina fi nu toll lépp macha allah man nga ne tey la gën a développé mm-hmm. waaye tey lay jafe-jafe yi ëpp mm-hmm. kon macha allah danoo war a gën a dellu si borom bi mi nu sant ne adduxu mu mel ni ki borom bi bu santaane rek farata la kon day doon farata si jullit bi muy ñaan ndax kay ñaan tawxiit a ngi si moom ndax biir na ko ne mhm. am na koo xam ne bii ma nga koy dégg te am na ku yor lu bari lool tamit loo xam ne bii mhm. ku ko ñaan rek lay déglu ngir mu jox ko mm, mhm. mooy tax saa yu jaam bi ñaan borom bi rek borom bi day wax ne jaam bi de ku ma yëg la jaam bi ku yëg ne am naa la jaam bi ku yëg ne man maa yore xéewal la waaye fa tabarakalaa loolooy tax eh, saa yu saa yu ne adxu nii rek borom bi ne sa astajib lakum mm-hmm. suñu jaaree sa yoon ba mm-hmm. su borom bi te man-manam ma kàttanam nag amaana xaj na ñun ñoo jaar beneen yoon ba won ne ñun ñun noo man mm-hmm. wan tuddee nu maaman <laughs> fa tabarakala muy baat boo xam ne bat boo xam ne yàgg naa koy wax si Wadduha ne waroon nañuy def mars ngir boobu tur nu sensé ko. si ñu ko tuddoo si ñu koy tuddoo. ñu koy tuddoo. Mhm. Mhm. nit day ñëw yenn saa yi man dem naa si maa man bu nekk. ba pare dama ko naan ki nga fekk si tey mbaa boolewoo ko si ñi man. na fa la yàlla rek man. Mhm. <laughs> Eh, ñaan nag fi lan ko fekk. ñaan moom waaye nit ki su ne man la koy laaj moom la ko war jox force. waaw ndax moo wax ne moom moo kon baat boobu macha allah nanu ko seetaat nanu koy seetaat wax ne kenn ay borom xudrat ak iraada te mooy illah allah jalla jalaaluhu kuy ñaan nag jaar sa yoon ba. ñaan sa yoon ba du tas yaakaar. dama koy waxee lu bari ndab bu setee faw boo ko tàllalee yàlla mu def sa dara. waaye fa tabaraka la su dee sa bopp rekk nga gis. yow yaay mbër yaay ngand yaay li yaay lële. amaana xaj ñëw boo dëkkul ak seytaane. doo def lu sotti. seytaane mën na ñëw nag ne la yow la yaay waaj yi mhm. yow yaay ngand mi yow nangam yow nangam. Mhm. ngay tas di dem rek fekk te yoo mhm. da nga connecté wu si réseaux sociaux yi. sa àddina sa laaxira yëpp danga ko jëndee àddina. loolu it nu bàyyale ko xel. si ne amaane nit mën nañ koy dëkkal si ne xotbu la wala borom wilaaya la wala leneen la leneen la. fekk te wax yaasu billah yàlla bu nu mel ni moom. danga nga si dégg benn xissa ndeysaan mhm. benn euh, xissa benn kilifa goo xam ne macha allah euh, xutbu la ñu xutbu samaan la ñu bëri foogoon ne moom la mhm. waaye bi mu bi muy laata faatu mhm. dénk na njabootam yi ne leen néeg sàngam am na ku fa nekk na ngeen ko warmaal na ngeen ko warmaal bu ngeen jéem a def lenn lu ko naqat bi te néeg boobu moom kenn daawu fa dugg lu dul moom bi mu faatoo nag taaw bi ne man daal li sam papa wax ne danañ ko war ma dinaa jéem a xam lan la. bi mu fa demee nuyonteeg moom fekk te kilifa la si sa yaatin yi. Mm. ma ne ko man de sa jur man la la doon wax maa ko fal de. Mm. maa taxoon mu am tur lool maa taxoon mu bëri alal lool maa taxoon tamit macha allah mu bëri mbooloo lool. Mm. waaye tamit la ma ko doon la ma bëggoon si moom lépp daf ma ko daan defal. kon boo bëggee yow it nga àgg foofu danga may li may bëgg. te mooy loo xamee ne bii du lu déenee di gërëm du lu islaam di gërëm mm-hmm. bi mu waxee loolu doom ji ne ko wax waxi yaasubillah mm-hmm. man ñaanuma yàlla aw boobu yoon fa laa am ajjuma bu jotaan nag góor gi daf daan togg ñam yu bëree bëri mm-hmm. faqir yeeg masakin yëpp fa la ni xewloo julli juma door a dem bi ajjuma bi nu toggee ba pare doom ji déclaré ne tey balay kenn lekk nan nan ma déglu bi demee bay waaj a xewlu mu ne nañ ñëpp wax axoosu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bi ko mbooloo mi yëpp waxee nu ubbi ndab ya nga xam ne bii moo war na doon xéewal fa tabarakalaa ndab yëpp doon ay gannaaw àll kon loolu doon tegtal si ne eh, kooku seytaane la dëkkaloon loolu dañ koy bàyyale xel ñu bëree bëri rekk si ne macha allah eh, yàlla bu nu bokk si ñi seytaane di jay mm. yàlla bu nu bokk si ñi seytaane di jay yàlla bu nu bokk si ñi seytaane di jay fa tabaarakallaa si Ahmed Tidiane mm-hmm. mm-hmm. tabaarakallaahu te mu mel ni loolu dund bu gàtt bi jëlu ko fi mm-hmm. Eh, mbooloo alal ak daraja moom tamit jërut. wala bëri na si loo xam ne li ñuy tuddee karama. kara karamal xay ni nga xam ne du dara. du dara du dara man dama si daan dégg dara sonn lool ngir bëgg koo xam. bu ma ko xamee dama naan lii rus naa ko def. doon yoo xam ne du dara dara dara tam na ñoo xam ne macha allah. tey yor na lu bëri te seloon lan ko amee. te doon loo xam ne boo demee ba wéet tranquille rek yow war nga rus ne lii. sa xel war na la yett waaw nit macha allah nit da ngay day am li ne wax juddu bu rëy. loolu si wax mhm. ndey ak bàyyi mhm. waaye leneen la nag borom a koy fàggu te muy ful ak fayda la mhm. fayda personnalité ak dignité loolu nit moo ko mën a utal boppam fu tabarak la te noonu nga ko waxee woon léegi rek dagguma la si ne àddina lu yàgg di la salle d'attente la nekk ñu ñëpp di xaar te loolu diggante bu gàtt boobu lépp lu nu si am lu dul ëllëg yaa ya, nafsul mutmaina lépp lu nu si am lu dul yaa ayyuhan nafsul mutmaina irji'i ila rabbika radiya mardiya fadxuli fi ibadi wa duxuli jannati lépp lu dul nu am lu dul loola rek mën nan wax ne perte la te fa tabarakallah yàlla bu benn jullit perte fa tabarakalaa yàlla na yàlla fóot xol yi yàlla raxas xol yi yàlla gënoo xer si boppam yàlla faj aajo yi tawat yi bëri na lool fa tabarakalla waaye yàlla mi nga xam ne mooy saafi yàlla yàlla yónnee sifa si yaram yëpp ba yaram yi woyof fa tabarakalla xat-xat yeeg jafe-jafe yi bëri na waaye yàlla mi nga xam ne macha allah moom mooy lépp moo yor koom moo yor sutura mu ngi ñaanal ñëpp si ismullahi satar yàlla may ñëpp sutura fa tabarakalla lépp loo xam ne lu nit bëgg la te muy lu yàlla gërëm tay muy lo ko dul yakal dinem mu ngi ñaan mebet bobu fa yalla motal ko ko sunu rakki sunu jarbaat sunu jigen yi nga xamne bi bii bëgg nañu wéttal dama koy wax lu bëree bëri ndeysaan santé rek ma ko doon wax sama benn jarbaat bu ne ma tukki rek la bëgg mané ko sama jarbaat xam nga luy jigen bi ci jitu ma waaw mané ko moy am sëriñ bu baax am borom kër bu baax kon lolu moy xéewal bi jitu, si jigen ci lima fokk bu loola ñëwee nag lu say tegee doon bonis kon ñu ngi ñaanal sunu jigéen yëpp foto tabaarakallaa yàlla tànn leen borom kër yàlla may leen borom kër yu baax su leen ko mayit fa tabaarakallaa yàlla defal leen sa njaboot yoo xam ne njabootu tànneef lay doon fa tabaarakallaa di ñaanal eh, ñi nga xam ne bii ñu ngi si buntu ut ñu koy waxee ngir dimbale paa bi dimbale meer bi muy yéene bu rafet tamit di yéene boo xam ne bii képp kuy doom rek bëgg nga ko ndax dinaa di wax ne diggante bulletin de naissance ba bulletin de salaire sore na sore na wallaay diggante boobu yëpp nag waajur moo fa nekk kon ñi nga xam ne seen yéene lépp mooy nunu dimbale waajur yi ñu ngi ñaan yàlla bettee leen ay xéwal ba nu mën a dimbale waajur yi yàlla yàggal leen ak waajur yi lool tamit fa tabarakalaa waajur yi it yàlla yàggal leen lool ak njaboot gi noonu koy waxee ba du nu séddale lenn seen gannaaw Cheikh Ahmed Tidiane tabarakallahu Euh, <coughs> mu comme li maam Sëriñ Tuubaa di wax rek mm-hmm. laa tastari dunia bi oxra ya fata man baa an nuur bi duja fa sa yandam wallaahi mu ne bul jël leer mm-hmm. di ko jëndeeg lëndëm wallaahi te mooy mooy mooy jël àdduna mm-hmm. <coughs> jaay sa jaay sa àdduna jëndee ko mm-hmm. àllaaxira mm-hmm. ne ko loolu jar nañ moytu wallaay wallaay laa tastari dunya bi oxra ya fata mm-hmm. man baax a nuuroon bi du jaa fa sa yaddam képp ku ko def dënk wala gi ko rëcc du jaa te ak bëri da nga ko rëcc ak bëri macha allah Cheikh Ahmed Tidiane am na si ñoo xam ne bu nu duggee nekk na xool fu ne seen bët ba xam daneen gis bagaas yu <laughs> bagage yu xaw a euh, naqaree gis te loolu du dara na ma yàlla baal mais macha allah su fekkee ne sa daara dafa mel ni nekk Cheikh Ahmed Tidiane amaana mën na noo ne ah kii de boo demee nangam nangam fekk kooku si nuuraan ya lay dund. waaw wallaahi nuuraan ya naan leer. Mm-hmm. day wuteeg loorit ka nga xam ne bii macha allah. leneen lay <laughs> day wute. day eh, loolu am na solo waxu Seexul Xadim Seex Ahmad Bamba boobu. Mm-hmm, mm-hmm, mel na ni minute yi bëreetul. bu amee ku ñëw kenn wala ñaar rek si 70. 104. 79 17. Mhm. su ñëwee nu jël ko. Mhm. door a yëkkatiwaat jotaay bi ba beneen dimanche incha allah. di wax ñëpp si kattanu yàlla dimanche bu nekk da ngeen mën a wettali konte ak ñun si Almadina FM. Euh, Dakar di 100 point 8 Kaolack tamit di 98 point 8 si kàttanu borom bi rediffusion yi incha allah dina am émission bu nekk. dangeen ko mën a dabaatal incha allah ngir ñi mu rëcc si kàttanu borom bi. Mhm. may ma dina gën a neex rutubaan laay laay la laawa yaa rasulillah ay waay bindéef yi xam nanu la am nanu la jinne yi xam nanu la am nanu la rab yi xam nanu la yawaan yi xam nanu la mamadooy ibnu abdalaay mamadooy mamadooy bismillah bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw eh, fii de man la Alla Ndiaye Yara. Eh, sëñ Alla Ndiaye. waaw moo xam ne Ndiaye waaye ñu ngi teewlu incha allah. wallaay ndeysaan eh, yàlla yàlla nangu. waaw rawatina na trop ñu ngi yàlla yàlla na yàlla fayoo. amiin amiin Ndiaye amiin. amiin jërëjëf sëñ Alla 70 104 79 17 di hmm. nuyu bàjjan tamit fa tabarakalla ak Omar Diallo mu ngi leen di nuyu bu baax tabarakalla maa yonen yonen Muhammad maa bëgg yónneen maa gënu yónneen bi Mustafa laay laay la bisimilah. bisimilah. waaw bu baax. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw eh, émission bi neex na ma de maa ngi dégg loolu. ndeysaan jërëjëf yaram. kontaan na bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. fan ngay wootee. Tayba sant Tayba sant. ah ndeysaan jërëjëf na ngi siyaare mbokki Tayba yëpp. jërëjëf jërëjëf. li di na solo trop trop. jërëjëf yaram. moom ñu baax na jërëjëf yaram. jërëjëf. Mhm. Mhm. laa ilaa yaa mata xam laa ilaa sawaay rasulullah laa ilaa yaa mata xam ko sax day ku bëgg yónneen maa bëgg yónneen bi maa wolu yónneen maa bëgg sax ku xam ci yónneen maa bëgg yónneen maa bëgg yónneen sëñ Bara Diouf noo bëgg <laughs> yónneen macha allah yal na yàlla barkeel ko yal yàlla yokk ko barkeel mu mel ni ki ni si minutes yu mujj Wadduha si almadina fa tabarakallah eh, lépp lu si jum nu ngi koy sant yàlla jëla jëlaaluhu di santaat bu baax sunu technicien bi ñu jàkkaaroon di bamar job Diop wara classi passé fu bek dogu bi mu def ngir tay mbokk yi mën ñom ci ñoom si 104 819 17 du ñak beneen dimanche ngeen mën a ñun comme ni ngeen ko daan defé ci téléphone fixe bi fa tabarakalaa di sante bu baax tamit mm, tay ñaanal sama rak ji nga xam mo ubbi tay émission bi ndax ñu dañoo xawoon a am tardement fa tabarakalaa di koy sante di koy ñaanal yalla comme ni koy waxee rek yàlla def ko mag te yàlla sàmm ko loolu rek lañ koy ñaanal waaye lépp loo xam ne lu yàlla luy teraanga la si kàttanu yàlla ak man-manam yàlla mën na ko koy may ndax ma nga sa yoon ba ndax yoon ba mooy jub yoon ba mooy màndu yoon ba mooy worma yoon ba mooy respect fa tabarak te loolu lépp macha allah macha allah mu ngi si moom te ngërëm yi way juróom tamit macha allah ba jiitu yóbbu na ngërëmam. bi fi desande te yalla na fi yàgg lool sha allah sa yu ma ñaanal ko fa tabarakala kon ni koy nuyu di koy ñaanal muy sax di sant alxaji khadim rasul gay di koy ñaanal yëg nañ jappandal bi ndax émission bi sha allah bi ko nit ñi déggatul woon tamit ñu bëri ñu ko doon si wadduha point org wadduha point org fa tabarakalaa daj ne àddina fu nekk si àddina bi nit ñi newul fay dugg di barkeelu si émission ya fa jot am kon liggéey boobu comme na ma ko doon waxee yàlla ko yàlla yokkal si téere jëfam yàlla yokkal koy xéewal yàlla yokk wéral cëram yàlla yokk ko sàmm lu bëri bëri di nuyu kër gi di almadina FM fa tabarakalaa di ñaan yàlla yokk fay xéewal yàlla yokk dëgëral li ñu ko sos ñi fi yëngatoo ñëpp yàlla yokk leen ay xéewal fa tabarakalaa émission Wadduha suñu yàlla dimbalee dimanche bu nekk incha allah danañ fi wettali konte ak yéen di wax ne dëkkuwaayu Mara mooy buntu lycée maam Limaamu Laay buntu lycée Seydina Limaamu bu Géejawaay boo yéeg euh, montagne bi rek si buntu bi dendee ak télé Pikine da nga gis benn tableau bu nu def euh, Touba téléphone Kër Mara so wàccee rek boutique bi dend ak moom mooy Touba téléphone soo demee alxaaji fallu Ka dana la woon dëkkuwaay bi lu dul bésu àjjuma si kattanu yàlla lu dul bésu àjjuma si kattanu borom bi na nga fa li 10 heures ba avant wa mm-hmm. waaw ba bani ni julli timis diggante bu jaam bu fi ñëw rek si kattanu yàlla yàlla mën nay def gisee di ñaan képp koo xam ne say mbir nar na fay defaroo yàlla yombal jotaay yombal gisee képp ku ñu yorul say mbirit fa tabarak laa ñuy ñaan lenn bañ say jàppandi nuy déggante bu dee sa fajak aajo ma nga sa nuy déggante wala wala ma nga sa ngir si nga dem si beneen jàmm di ñaanal sëriñu daara yëpp it comme na ko daan defee di ñaan yàlla barkeel xalima yi yàlla barkeel lor yi di wax ne nan jàpp ne lépp lépp yàlla la yàlla moo man yàllaay defar bu ko defee nu jaar si yoon bi yàlla dana nuy yokkee rus waaye sax ne tijaan fa tabarak am na yu bëree bëri bëri suñ ko def nak bu yagge man nay doon leneen fa tabarakallah te ñu bëree bëree bëri ngi ni sanni xeer te dina di wax ne waja ak waja nak do xam kan la waye waja ak gaña dag naan waja mo tooñ kon bu ñepp day wax nak bu yagge xaj ñam man nay doon ci ñun man ñaanu mo mukk sha allah jël ben yoon te moy bo ñewé bo ñewé bo ñewé man jëluma bobu yoon yoon bu ma jël dal moy fa ku ñu yalla boole lepp yombu mooy tamit saa yu ma toogee lépp lu mën a jariñ doomu aadama dinañ sa dogg suñu kéem kattan si kattanu borom bi di wax ne looloo nekkoon seen émission suñu jokkuwaay mooy 77 617 70 44 77 617 70 44 xam taxi Wadduha it ma ngi fii fa la pour képp ku fa bëgg a ñëw te sa tànk diis wala nga bëgg nga am lu lu mu la indil ak yu mel noonu lépp loo soxla si daaray Wadduha soo jokkoo ak si Ahmed Tidiane fa tabarakallah si 77 017 41 45 fa tabarakallah moo yore dana la coordonné ki yore taxi Wadduha ngir loola nga itoo fa tabarakallah nga mën koy am te coono yi xaw a wàññiku looloo nekkoon seen émission baat bu dee bi nu xaw ma si baal coono yi la lépp lu si jóg nu koy sante yàlla jëla jëlaaluhu loo si safana ñu ngi leen koy jéggalu gannaaw bi nu ko jéggalu borom bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Ahmed nu bàyyi la nga tàggatoo simili junne xanaa rek di dellu di sant yàlla baax a baax jul si sinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di wax rek ni lépp lu jub ci wax ji rek ci ñu koy sante yàlla ci kàttanu borom bi la lépp lu ci dëng ñu koy jégalu yàlla di ko jégalu ñu doon dugg ñëpp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

وادوها يلا موجيجين يور يور لا لبا الله محمد سيسي مارا وقول اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد المدينة يفهم المدينة يفهم au cœur du salon.